bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma baad mbokk yi ñu ngi sant borom bi tabaraka wa taala di jullee ka sëlmal ca sunu sang bu tedd ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu loolu wéyee ñu ngi leen di nuyu di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw loolu ah xanaa dañuy jéggalu jéggalu goo xamante ni moom amna fumuy tambalé muy amul fumuy yam yem ci eh, xëy na tardement bi nga xamanteni mom lañ am té muy lu génn sunu ciobaré eh, ñu ngi nii di doga a yegg ci kër gi yalla xamna lolu eh, kon duñu guddal ala kulli hal ñi ngi jéggalu ñepp ci tardement bobu ñu tardé fanweeri minute di ñaan borom bi tabarak wa taala mu defal ñu tawfiq te defal leen ko salaamaaleykum tayib alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ginnaaw bi ñu sante borom bi tabaraka wa taala di julleeka sëlmal ca sunu sang bu tedd ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, ñi ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq te defal leen ko euh, di euh, sant mbokk yi nga xamante ne ñoo taxawee waxtaan wi di ko organise waaye di sant mbokk mi nga xamante ne moom lañ ko séqal waaye di sant mbokk yi nga xamante ne ñu ngi déglu yépp kon ñu ngi déglu mbokk mi nga xamante ne mooy diriger débat bi fu mu ñu joxoñ rek ñu daal di jëm foofa salaamaaleykum wa rahmatullah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah seydina muhammadin salallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbokk yi déglu yépp leen di sargal di julli di sant yàlla di julli ci suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah yaakaar naa ne waxtaan wi ci li waxoon moo di gàmmoo ndax euh, noon la biddaa la wala du biddaa lu ñu war a def la wala lu ñu wartu def man loolu lañ ma communiqué woon yaakaar naa it loolu la macha allah ñu ngi leen ci déglu lu ngeen ci laaj ñu wax ci luñ ci xam jërë ngeen jëf ñu ngeen ndokkeel ci weeru gàmmoo wi mooy suñu conviction. mbokk mi xam na yaa ngi yaay def yaay doxal uh, kii bi uh, waxtaan wi dama bëggoon bala ñoo wax ci gàmmu biddaa la wala du biddaa ñu ñu définir ma définir définiral ko lan mooy biddaa mooy tamit mu wax lan mooy biddaa pour ñu mën a départ pour ñu mën a xam ñu mën a si sinon moom bu waxee ne nangam mooy bida ma ne nangam du bida bu waa lu mooy problème il faut ñu def taarif bida lan mooy bida loolu laa bëggoon su fekkee may ngi ñëw. bisimilah yaakaar naa ma yoro kàddu gi léegi xaw ma eh, en tout cas bida eh, mooy lu ixtiraau cheyin ala xeyri misaalin saabix fent loo xam ne amul exemple boo xam ne moo ko jiitu xam nga yàlla sax bidaakat bu rëy la ndax mooy badiu samawati wal art moo créé loo xam ne kenn nekku fi woon bon eh, moo tax eh, même yonent bi moo naan maa kuntu xul maa kuntu yàlla naan ko xul maa kuntu bit an mina mina rusuli du maa fi njëkk ci yonent yi am nañu fi jiitoon ba nekkuma bidaa ci ab yonent du man man maa fi njëkk woote bi yonent loolu la loo xam ne kenn mosu ko fee def léegi nag bu xamee lan mooy loolu moom laa loolu laa définir lan mooy bidaa amal loo xam ne amutoon misaal bu fi jiitu bon yonent bi du biddaa ndax am na yonent fi jiitoon yàlla moom biddaakat la ndax moo bind asamaan suuf kenn mosu koo bind ok sama taarif alhamdulillah ñi ngi sant borom bi tabaraka wa taala di delloo jullee ko salman ca sunu sang bu tedd ba sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu loolu wéyee kon ñu dugg ci waxtaan wii nga xamante ne moom lañu dige woon ne danañ ko amal ci waxtu wi ci bis bi te mooy ñu waxtaan ci euh, gàmmu euh, ndax bidaa la am déet ndax sharia joxe na ci ndigal am déet mbokk mi indi ab laytaay ne munta ñàkk ci tàmbali waxtaan wi moo di ñu xamle lan mooy bidaa mu ne naa ko xamle moomit mu xamle ko bañu xam fi ñuy teg sunu tànk bañu xam ndax gàmmu day dugg ci bidaa wala du ci dugg léegi ñëw na xamle na ni bidaa mooy ixtiraau shey ala gayri mithaalin saabiq mooy nga sos loo xamante ne amut nga sos loo xam ne amul woon léegi muy sàkku ci man ma définir xamle lan mooy bidaa bala may xamle lan mooy bidaa dama koy wax ne xamle gii mu xamle bidaa day wér na waaye nag du bidaa ci diine maanaam xamlewul lan mooy bidaa ci diine te bidaa bi nga xamante ne moom la sharia ŋàññi mooy bidaa ci diine bidaa ci diine ndax sos loo xam ne amul woon bi maanaam avion ki nga xam ne moo ko defar moo ko njëkk a defar kooku kon indi na bidaa waaye ndax indina na bidaa ci diine déedéet waaye indi na bidaa ci aw làkk ak ci li nit ñi di dund moo di ne indi na fi loo xam ne defar na fi loo xam ne kenn mësu koo defar lu ko jiitu ki nga xam ne moo defar oto naka noonu ki nga xamante ne moo defar téléphone naka noonu kon yooyu yëpp ay bidaa la waaye du bidaa ci diine yooyu sharia nga ñiw ko kon loolu moom sharia moom da koo bàyyeeg nit ñi lépp loo xamante ne wuute wu caag sharia loola lu baax la lu mën a doon lu nit ñi defar ci àdduna te amul dara lu cay wuuteeg sharia loola lu baax la manees na koo jëfandikoo ci lu baax mu doon lu baax manees na koo jëfandikoo ci lu bon mu doon lu bon ndaxte alwasail laha xukmul maqasid comme ni ko boroom xam-xam yi di waxee jumtukaay yi ngay jum yi ngay jëfandikoo la nga ca jublu la nga ca jublu moom ak jumtukaay bi ñoo bokk àtte bu dee jumtukaay bi da nga koo jëfandikoo ci lu baax booba jumtukaay bi lu baax la bu dee da nga koo jëfandikoo ci lu bon booba jumtukaay bi lu bon la kon xamle bidaa ci sharia bokkul ak loolu léegi nag kon mu mel ne kon aji laaj dana laaj ne waaw ne xamleel kon yow lan mooy bidaa ci sharia ñu ne ko bidaa ci sharia boo koy xamle faw nga dellu ci alquran waaye faw nga dellu ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak boroom xam-xami lislaam yu baree bari yoo xamante ne ñëw nañ xamle bidaa le goo xamante ne dana dëppoog loolu waaye jëlal laaya ci alquran yàlla nee na am lahum shurakaau sharacu lahum min addiini maa lam yadan bihi llah laaya bi moo xamle bidaa xamle bu fees gu leer mooy lan bala ñu firi laaya bi ñu xamleel bidaa mooy lan bidaa mooy sos ci diine loo xam ne yàlla ak yonant bi joxewuñ ci ndigal moo xam la nga sos ak jaamu yàlla la gu yees la koy jaamoo yàlla wala ab lim bu yees booy jaamoo yàlla boo xam ne sharia joxewu wu ca ndigal wala nga sàkkal ko palace boo xamante ne sharia joxe wu ca ndigal wala nga sàkkal ko jamono joo xam ne sharia joxewu wu ca ndigal wala nga am ca pas-pas boo xam ne sharia joxewu wu ca ndigal wala jaamu yàlla ga nga koy def ngir sabab boo xamante ne sharia joxe wu ndigal wala nga koy defee ci façon boo xamante ne sharia joxe wu ca ndigal wala nga indi lu ñuy jaamoo yàlla. maanaam jinsul ibada comme benn waay boo xam ne day tabaski indi aw fas ray ko tabaskee ko kooku indi na jëmm ju ñuy jaamoo yàlla joo xam ne dañ koy jëfandikoo ray ngir jaamoo ko yàlla te sharia joxe wu ci ndigal ci tabaski ndax foofa xarak ak bëy ak nag ak gëléem lañu lay sharia joxe ndigal bahimatul anam kon yii yépp ku ci wàcc yoon nga def ci lenn te sharia joxewu ca ndigal indi nga bidaa ci diine léegi kon laaya bi nga xam ne mooy tegtale loolu lu muy firi yàlla nee na am lahum shurakaa'u shara'u lahum min ad-diin maa lam ya'dan bihi llah booba mi ngi doon wax ak ñi nga xamante ne ñoo doon opposé yonent bi sallallahu alayhi wa salam di jaamu leneen lu dul yàlla yàlla ne ñoo ñi nga xamante ne ñooy jaamu leneen lu dul yàlla ndax dañoo am ñu ñuy bokkaale yàlla ñoo xamante ne dañ leen di rëddal ci diine shara'u lahum min ad-diin dañ leen di ci diine loo xam ne yàlla joxewu ca ndigal loola istifham inkaari la yàlla laaj la boo xamante ne da koy bañ da koy ŋàññi maanaam moo gaañi ndax dañoo am ñu ñuy bokkaaleeg yàlla ñoo xamante ne dañ leen di rëddal ci diine loo xam ne yàlla joxewu ca ndigal kon shara'u lahum min ad-diin kon yoonal ci diine ma lam ya'dam te yàlla joxewu ca ndigal loolu mooy ñaari ponk bidaa lépp loo xamante ne nit sos na ko ci diine te yàlla wu ca ndigal bidaa ci yaxu laaya boobu di alquran ñaareel bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax ci xadis bu wér ne man axdata fi amrina haada ma laysa minhu fa huwa radd ku sos ci sunu mbir mii mbir moomu mooy lan mooy diine ci ma laysa minhu loo xam ne bokku ci lan moo ci bokkul mooy lépp lu yàlla joxewul ndigal ak yonente bi salallahu alayhi wa sallam te lépp lu ñu sos rek bokku ci moo tax loolu wax nañ ko ba tàyyi loolu moom la usul yu noo di tuddee wasfun laazim maanaam melokaan woo xam ne dafa taqook li ñuy melal mooy foo fekk lu ñu sos ci diine rek xamal ne loola bokkul ci diine mi ngi mel ne yàlla fa mu waxee ne wa an tushriku billahi ma lam yunazil bihi sultaana yàlla dafa tere ngeen di bokkaale yàlla ci loo xamante ne indiwu ca aw lay moo ndax am na bokkaale yàlla gu yàlla indi aw lay amul foo fekk bokkaale yàlla rek amulu lay léegi kon loolu mooy foo fekk lu ñu sos ci diine rek loola bokkul ci diine kon man ahdatha fi amrina haada maa laysa minhu fa huwa radd kon loolu mooy firi laaya ba ku sos ci diine ji du ci bokul dañ la koy delloo ndax lan ñu la koy delloo ndax yàlla ak yonent bi joxe wuñ ci ndigal kon loolu moy bida ci yahu alquran ak ci yahu waxu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bismillah jere jeuf mbok mi ñu ngi sante macha allah di la wax sa wax ji dafa xaw a diib te temps man wax dëgg yàlla aw ma ko fexe naa ba waa kër gi jénn nañu waaye dafa sedd xaw ma kañ la ñuy dellusiwaat te buñ dellusiwaatee dama yori xale xaw ma ndax waxtaan dina mën a continuer di dina xaw a jafe pour man bu ko defee ma lay koy xamal ne boo defee taarif lan mooy bidaa ci loxo rek junj nga ko ci chara mooy la ci sharia ndax mooy sos loo xam ne amatul sos loo xam ne amatutoon diine nga sos ko lu bari la munta ñàkk ndax xarakatu xayaat te tatalabu thalik munta ñàkk waaw ndax boo demee ci addis addis boobu nga xam ne tudd nga ko bi ko e, e, man na fil islaami sunnatan asanatan am na beneen beneen beneen addis bu ñëwaat man na fil islaami sunnatan xasanatan kaana lahu ajruha wa ajru man amila biha min baadihi laa yanqusu dalika min ujurihim shay wa man thanna fi lislaami sunnatan sayyi'a kaana alayhi wisruha wa wisru man amila biha min baadihi laa yanqusu dalika min min min awsaarihim shay wax nga ne ku sos ci suñu diine ji loo xam ne bokku ci gàmmu lu ñuy def lu ci bokkul mooy toog wax siire yonent bi man bët bu set ci gàmmu laay nekk saa su may jàngale rek maa ngi jàpp jàpp ne maa ngi jàngale ma maa ngi ci gàmm te man fu ma toll maa ngi ci ma maa ngi ci jàngale ndax ki nga xam ne moo fi indi diine ji bég ci moom loolu loolu rek mooy gàmm waaw bu ko defee ñàkk a sos ci diine ji mënut a nekk foo jaar nga sos ndax alxarakatul xayaat talabu zalik moo tax yonent bi ne ku sos ci ku man sanna fil ku su ku ku diine jii eh, sunna bu rafet danga am yool ba ak yoolu ku ko jëfee ba kere yowmal xiyaamati te lu wàññi seen yool ba dara ku sos safaan ba it noonu maa gàttal wax ci noonu eh, ku bu ko defee moo tax imaam Nawawi nettali ne Eh, eh, na na na Mouhamad ibn eh, Abdul Aziz ibn Isuddin dafa wax ci tiiram boobu ñuy wax qawaidul ahkam fi maslahatil anam ne li nga xam ne yonent bi defu ko bidaa la waaye nag dafay dañ koy séddale ay xaaj bidaa bu war biddaa bu arab bidaa bu ñu sopp bidaa bu ñu sib bidaa bu dagan lañ koy xamee nag mooy ñi gaaral ko ci qawaidu tahrim wala wala ci ci qawaidu sharia ñu xool lii ndax lii lu ñu war a lu ñu sopp la ci wala lii lu ñu soppul la loolu kat loolu la waaye bu kenn sos ci diine Seydina Ousmane ñaareelu nodd ci ki ku ko fi defoon ñaareelu nodd ci ci àjjuma gannaaw bi ima ñaareelu nodd ci aj bés bésu àjjuma yonent bi ba dund ba ba dem fi jógee ko benn rodd di nodd rek la ñu nodd Aboubacar Omar moom moo fi indi boobu ndax loolu nekku ci diine ak leneen ak leneen ok dama bañ a guddal aywa bismillahi irrahmani irrahim ah, ñi ngi delloo santaat yàlla subhaanahu wa di jullee ka salmal ca sunu sang bu tedd ba sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, bu loolu wéyee ah, mbokk laytaay bi nga ne woon nañ ko teg mooy ku ne xamle lan mooy bidaa yaakaar naa ni wàcc nga ko fa dem bi maanaa xamle gi nga xamle bidaa alquran tegtaliwu ko sunna su yonante bi sallallahu alayhi wa sallam tegtaliwu ko lutax modi ne bida faw mu nek bida ci diine moy bi diine ŋàññi legi kon xamle gi nga xamle bida rek lañ la bëggoon wax ne lolu bida la ci lugha ci lakku arab waye du bida ci diine te liñu taxajuk tay moy bida ci diine lolu lañ doon xamle legi nak man euh, waxna la laaya ba ak hadis ba Euh, ni mu définir li nga xamante ne mooy bidaa waaye loolu taxu ñoo jóg ñaareel bi mooy euh, yaa ngi bëgg a génn waxtaan wi wax nga ni euh, sa njaboot ñi ngi waaj a ñëw te buñ ñëwee xamuñu da nga mën a continuer déet lu mën a xew wax gi nga wax ne man sanna fil islaami sunnatan xasana loolu tontu laa ngi fi waaye nag buñ ko toppee bu boobaa kon ci bidaa la ñuy wax en manière xaw ma nuñ ko en manière générale lañ koy waxee yaakaar naa te ñun benn bidaa tey moo ñu yëkkati muy gàmm ci loolu lañ bëgg a wax bu ko defee wax jëpp nañ ko jëmale foofu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ay kon ñu wax la rek man sanna fil islaami sunna xasana nga xam ne ñi gis ne biddaa bu rafet dafa am dañ koy faral di tegtaloo loolu ab tegtal ne wu ca ci ñaari mbir di ci jiitu mooy min jihati riwaaya wa min jihati diraaya min jihati riwaaya min jihati diraaya mooy xadis bi li muy firi buñ ko xoolee luy firndeel ne bidaa bu rafet am na ci sharia amu ca mooy lan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dani man sanna képp koo xamante ne soobu na yoon woo xamante ne ci lislaam sunnatan xasana man sanna sunnatan ku rëdd sunna boo xamante ne bu rafet la ci lislaam fa lahu dana am tuyaabay sunna soosee nga xamante ne def na ko ci lislaam wa ajru man amila biha ila yowmi alqiyaama ak ku def loole mu def ba yowm alqiyaam di taxaw mu ne wa man sànna fi l islaami sunnatan sayi'a ku rëdd ci lislaam sunna boo xamante ne bu ñaaw la fa alayhi wisruha bakkaar ba danga koy gàddu ak bakkaaru ku ko def ba yowm alqiyaam di taxaw xadis bi bu ngeen seetloo sunna xasana la yonent bi wax ak sunna sayyi'a sunna bu rafet ak sunna bu ñaaw waa sunna bu rafet bi kan moo koy rafetlu lislaam moo tax mu ne man sanna fil islaami sunna xasana ku rëdd ci lislaam sunna bu rafet lislaam mooy rafet lu ne lii sunna bu rafet la nga ñëw def ko nit ña gis ko ca yow def ko da ngay am tuyaabay def ga nga ko def ndax lislaam a ko rafetlu te ña ko def ngir lan ko def dangay am seen tuyaaba xaaj bu mujj ba ku rëdd ci lislaam sunna bu ñaaw waaw sunna bu ñaaw boobu kan mooy àtte ni dafa ñaaw lislaam a koy àtte mooy lislaam àtte ne ni sunna sàngam dafa ñaaw sunna bu ñaaw booba yow nga ñëw def ko nit ñi gis ko dangay am bakkaar ci def kan ko def waaye da ngay am bakkaaru ku ko def ndax yaa ci yow la ko gisee ba def ko xadis bi loolu lay firi xadis boobu beneen xadis moo koy firi bu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay waxam mooy firi ay waxam xadis boobe mooy lan mooy yonent bi nee na man daa ila huda yonent bi nee na ku woote ci ak njub kaana lahu min al ajri mithla ujuri man tabi'ah day am tu bay ku def njub googee nga xam ne woote na ca ndax moo ko woote ba nit ña def ko waaw njub googu kan moo àtte ni loolu ak njub la lislaam yàlla moo indi alquran hudan wa rahma lil muttaqin wala lil muhsinin ci aay yu bëree bëri hudan muy ak njub yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu indi ak njub kon njub googu ku ci woote ku ko def rek da ngay am tuyaa ba def gam ko def ndax yaa ko ca woo mu ne waman daa ila dalaala ku woote ci ak réer kan mooy atte ni lan mooy atte lii ak réer la lislaam mooy man sanna sunna xasana ak man sanna sunna sayia kon ku woote ci ak réer da ngay am bakkaar ba nga ko defee ba nga wootee am bakkaaru ku ko def ndax yaa ko woo kon foofu njub gi lislaamay ay lii ak njubla la réer gi lislaam ay àtte ne lii ak réer la sunna bu rafet lislaam ay àtte ne lii rafet na sunna sayi a lislaam ay àtte lii ñaaw na waaye lii kay lu leer la te la koy gën a leeral mooy man sanna fi lislaami sunna xasana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu koy wax lu taxoon saraxe dafa woon nit ñi ne na ku ne indi la nga am benn waay ñëw ëmb alal ju bari ne wesar ñëpp dem sarxe sarxe bu ba alal ji nekku jal yonent bi kontaan wax loolu waaw ndax sarxe kan moo rafetlu sarxe waa ji ñëw moo ko rafetlu wala lislaam rafetlu woon na ko yonent bi rafetlu woon na ko moo ne moo leen ci jox ndigal ne leen indi leen sarxe leen yàlla fay leen mu def loola looloo waral xadis bi kon lu tax li waral xadis bi ñu koy teqaleeg li xadis bi firi loolu yaakaar naa ni du xam-xam euh, loolu moo jëm ci li nga xam ne moom la xadis bi firi amma min naaxiyati diraya ah, min naaxiyati riwaya mooy xadis bi am na benn riwaaya boo xamante ne ñëw na ci sunanu ibnu maaja bu ma juumul ci beneen riwaaya boo xam ne bu wér la yonentu bi ne man axyaa fi lislaami sunnatan xasana maanaam ku dundal ci lislaam sunna bu rafet yaa allah nga xam ne riwaaya boobu dafay firi riwaaya bi nga xamante ne mooy kon lislaam rafetlu na nga def ko def nga nga ko defal dundal nga ko ndax def nga loo xamante ni nit ñi miinuñu ko woon lu lislaam rafetlu la woon ñu wanoon ko ginnaaw wala xamuñu ko woon wala ñu fàtte ko nga def ko lislaam àtte ni lii lu rafet la nga def ko ñoom ñu topp la ca da ngay am tuyaa ba jang jang ko defee ak ñoom topp gañ la ca topp kon xadis xadis euh, boobu noonu euh, loolu lay firi kon loolu maanaam ab fenêtre la woon rek boo xamante ne boo ko ubbee dañuy yóbbu ñu jëm ci di dem di waxtaan ci bidaa bu rafet ak bidaa bu ñaaw te tay nak mom benn bida moo ñu tax nga nga wax ne dafa rafet man mani dafa ñaaw wutek yoonu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wa sallam euh, lool nak buñ ko waxe duñu ñu ci yene yi ña nga xamante ne def loolu ñooñu seen yene man na bax waye nak <laughs> nekkul ne kep ku yéeneem bax rek jaar na ca yoon wa bari na ño xamne ne ju rafet mom lañ am ci li def waye nak dañuy wacc yoon euh, kon bëggumaa guddal xamna naa damay indi leneen ci benen audio donte teunk moom mënuma ci dara bismillah eh, mbokk mi bon eh, sama dalil ne mën nañ ko bañ a tuddee bidaa moo ne yonent bi daana woor altine ñu ko laajee lu tax ngay fonk di woor altine mu ne si parce que ci la judd bon màggal na bés bi ma doon judd màggal na sax ay atam ndax ajatul wadaa ba mu demee téeméeri gilem la yóbbu woon mu rey juróom-benn fukki gilem ak juróom-benn fukki gilem ak ñett muy atam yi mu dund mu bàyyi Seydina Aliou naka rayal yi des bon màggal na it ay ay atam màggal na juddoom boo demee ci alquran it yonent bi dafay wax ne moom mooy rahmatul muhda boo demee ci tafsiru alquran bu ñuy wax ruuxul mahani bu Cheikh sa Alousi dafay wax ci aaya boobu ci sooratu Yunus muy cinquante-huit قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما هو خير مما يسمعون نينا موي نا نان بك سي يوننتي بي نان بك سي يوننتي بي نان بك سي بيس جودوم نان بك سي دينم نان بك سي ليپم نان بك سي توپ سنام بون لولي سكنديكو لا سي فكين القران بو ديمي سي ابن عجر العسقلاني بيغا خامني مو مو سرا بخاري ci mu Fathul yi nga xam ne ñëpp wala bokk ñi ëpp d'accord nañ ne mooy afdalu sharhin lil yi saraa bi gën a baax ci sar bi gën a am solo ci saraa Buxaari yi mooy saraxam dafa ne gàmmu day ay ay rafet a ngi ci ay safaan mu ngi ci ci ma nga sans ci ña koy def ku mën a moytu safaan ba day di def yu rafet ya bon mu dugg ci lu ñu tuddee moom lu ñu tuddee sunna bita xasana ibnu asa xajara asqalaani moo ko wax de nee na te sax nag gis naa man ne laqad zahara li taxrijuhu ala aslin saabitin gis naa ne gis naa ne man na si mënees na koo jénne ci cosaan bu saxa saxa sax mooy ne ñu ne ko nan la mu a yonent bi bi mu ñëwee Medina fekk yahud yi di mu la ashura ñu laaj ko lu tax mu laaj leen lu tax ñu ne ko bés la boo xam ne ci la yàlla musaleexoon Muusa fe labal ca na muy bésu suñu cant pour ñeexal ñu bés boobu santee ko muy bés bu ñu ràññee yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ne bon ñu gënu leen ci Muusa santaane ñu xoor ko waxul leen ne ndax Moussa leen ko santoon waxul leen ne déedéet moom dana leen gëñ leen xëy ci Moussa mu commencé di ko xoor loola kat Ibnu Ajar Asqalaani wax ne bon ndem sa euh, sant bés na ko wax ne nag nee na azamu niamatin mooy buruusu hasan nabi kenn bu yonent bi day bon mooy mooy xéewal gi gën a mag bon def ci sant def ci màggal def ci cant nee loolu cosaan bon am na cosaan lu wér moom moo ko def taxarik noonu bon wax naa la al aaya boo xam ne boroom xam-xam moo ko moo ko firee noonu wax naa la addis wax naa la waxu boroom xam-xam boo xam ne moo def istintaaj indi na cosaanam loolu la ok bismillah eh, jërëjëf mbokk mi dégg naa sa wax maaye man ne ne xawma tam fu may ko parce que Eh, da nga def lu mat ñetti vidéo wala ko xam audio wala ñeent yoo xam ne maa ngi commencé waat di répondre waa ji di ma woo di ma eh, jalgati eh, xamatuma nu may numti en tout cas addis ba ma dellu caat ci addis ba man sanna fil islaami sunnatan hasana wax nga firi nga ko sa firi bu dëppoog sa bànneexu wala boog sax ni mu ko firi ko firi waaye da ko bëgg a taawilaat neneen waaye nañ delawaat ci luxal arabiya man sanna fil islaami sunnatan xasanatan sunnatan sunna bu mu munta doon xasanatan bu rafet nga bëgg wax lan yow yaa gën a dégg nit ñi arab kana nakira bu ñëwee lu muy tekki umum lay tekki sunnatan xasanatan gàmmoo ngi ci biir màggala ngi ci canta ngi ci bu rafetee rek rafet na yeneen bi musa gàmm wane na dalan waxoor nga ne yonent bi bu lañu xor lu tax du du ñu xem ca koor ga ku mëna xor xor ku mëna xor jang alquran de def ko laysa kullu ma fi sunna mulzim da ngay def la nga ca man lu bax li bari na no xuñ la farata la nga magal yeneen nga magal giddu yonent bi boko mané def ko boko mënu nga bàyyi boko defé ren bu ëlëg nga def ko tariixa biñ koy defé man na sens man nga wor man nga jangal alquran man nga waxal sire yonent bi nga bëgg na lan nga bëgg ko feree leneen doo dimbale nit ñi man sànna fil islaami sunnatan xasanatan umum hadis ba li nga loon addi hadis ba nga loon wax ne iyaakum muhdasatu la loolu benn hadis la du ñaari hadis benn hadis la wa kullu bid'atin dalala nañ delluwaat ci nawawi lu mu wax inna haazal kullu inna haazal kullu min al mutlaqil muqayyad ndax du lépp loo kullu bu ñëw rek du ci alquran du ci sunna du ci luxal arabe du al kull bu ñëw rek nekk nekk nekk mutlax nañ delloo ci luxal arabe boo delloo ci alquran indi wajatum raatan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arsun azim min kulli shay'in wa utiyat min kulli shay'in ndax amoon avion déedéet ndax kull gi kull la boo xam ne dafay du kull boo gis rek mutlax la boo jëlee ci hadis yeneen bi wax na fil habati sawda shifaa'un min kulli da ah, arabi saudi go nga nek habatu sawda rek la ji faje kullu bo gis rek kullu lepp lepp lepp ah bu ko defee yenent bi musu koo def yenent bi musu koo yenent bi def ko nga dem indil la indil hadith bo borom addis yenent bi dana hor bon kay am na cosaan am ajar asqalani wax nako ñaata borom xam-xam ñoy wax ne gàmm mun na nek yaa leen ëpp xam-xam suyuut yi waxu ko ibnu ajar asqalaani waxu ko saqaawi waxu ko nawawi waxu ko ibnu ansor waxu ko muhammad maxluuf cheikhul azhar waxu ko ah muftiyul masar ali jumaa waxu ko xaradaawi mi tey di dund yàlla ko yàlla guddal fa sax woo waxu ko nga bëgg fee yore daanaka lu koy yonenti Muusa ko def saxaaba yi ma laysa kullu ma fi sunna mulsim ay mustahabaat la ay ngëneel ak ay nangam nangam ku bugg def ku bëgg ku bëggul bay tekkiwul la ñoom xamuñ ko wala nangam ay ñi nga coon lu ëpp solo ñi nga doon jihaat ñoo nekk azaz ñun ñi nga xam ne nag dañoo ñoo fekk mu togg ba neex nag ñun nga xam fekk nañu bind téere yi fekk nañu def lépp ah man wax am na lu ma la fi ñu sax ak addis boobu euh, euh, euh, indiwoo ko Seydina Ousmane mu yokk ak nodd moom boobu it war nga cee tontu ok jërëjëf. en tout cas dal li ma lu bëgg xamal moy ne laysa kullu ma fi sunna mulzim amna yo xamné khas li rasul amna yo xamné ay mustahabat la boko defé yow yow la concerné boko deful nga nek lo xamné li par force da nga wara magal màggal yonent bi yonent na juddoo na war na borom xam-xam wax nañ ko fekkee ya ya ëpp ibn ajar asqalani mi nga xamné ak ya ëpp nawawi bi nga xamné mo lay tuddé shaykhul cheikhul nga xamné mo lay tuddé tuddee sëriñu sëriñu tariqa euh, Shafii nga xam ne mooy mu xarir mooy mooy mu hazab li mooy mu naqix mu rattib li li li li fekk yaa na ëpp xam-xam bon euh, demal yow ak sa gaa yi en tout cas nga bugg fi indi ne mu munta euh, amul daal amul en tout cas man sann man sanna fil islaami sunnatan xasanatan sunna bu mu munta doon bu rafet ku ko sos yonent bi na danañ sos de lu rafet yoo xam ne ay ñuy sopp la ak ay nangam nangam waxuñu leen lu war la boo ko deful yàlla defal nangam non non yi sopp la lu rafet la ah lu sopp la lu rafet lu ra yonent bi nam ko defee woon lañ ko defee lu yonent bi lu mu bu ko def ndon ndonte defu ko xëy taman lañ ko bañ ñun ñu sos ko te koy def tam rafet yi lu baax la parce que lu ci nekk yonent bi defu ko du lay mooy yenent bi tere na ko mooy lay alquran lu ñuy wax mooy topp leen yonent bi lu leen indi topp leen ko lu leen tere bàyyi leen ko ndax tere nañu bu ñu gàmmu man de gisaguma ko gisaguma addis bu tere ne bu kenn màggal juddu yonent bi de waa jàng naa ci a wa tahziruhu wa tuwaqiruhu su fekkee ne euh, damir bi day dellu si yonent bi mooy nañ koy respecté nañ koy xormaal waaw ok salaamaaleykum wa rahmatulah. Euh, euh, waaw ñu ngi sant yàlla subhanahu wa déglu nañu mbokk mi firnde yi nga xamante ne moom la indi mooy wane ne euh, gàmmu lu baax la bi ci njëkk mooy nee na yonent bi sallallahu alayhi wa daf doon woor bi su altine kon moom màggal na ab juddoom kon loolu kon firnde la buy wane ne kon manees naa màggal juddub yonent bi sallallahu alayhi wa euh, loolu de liñ ci wax mooy yaakaar naa ni képp koo xamante ne naa Muhammad ngay topp boo bëggee màggal ab juddoom comme moom na mu ko màggalee woon mooy dangay yem ci woor bi su altine lu tax ndaxte bu fekkente ne danga nga màggal ab juddoom lu weesu loolu ci ay xeeti jaamu yàlla kon def nga ci diine loo xamante ne yàlla ak yonent bi joxewuñ ci ndigal lii rek doyoon na sëkk firnde ni kon ndekete gàmmu fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm wala beneen bis boo ko mën a tànnal bu bokkul ak nga woor bisu altine loolu day wuuteeg yoon wi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam rëdd lu tax ndaxte kon yonent bi dafa rëdd ak jaamu yàlla ngir sabab sabab bi mooy lan mooy ab juddoom te waxoon nañ ne yoonal ak jaamu yàlla ngir sabab dafa bokk ci particularité sharia mooy sharia jago comme ni nga xamante ne yonent bi noonu la yoonale ci ndigalal yàlla ak julli goo xam ne dañ koy julli buñ jàppee weer wi nga xam ne julli googa la ko waral mooy jàpp gañ jàpp weer wi buñ jàppul woon weer wi nga ñëw julli julli gu mel noona da ngaa julli de mais yàlla dala ciy bindal bàkkaar ndax lan ndax def nga loo xam ne sharia joxewu ci ndigal kon ki nga xamante ne day màggal juddub yonent bi du weesu woor bisu altine mom ak ki nga xamantene dafa dem sos ak jaamu yalla gu def ngir luñ japp wèr wi comme ñu japp wèr wi mu dem di wacce kamil koku ma ngay wacce kamil di jang waye da ci am bakkar ndax lan ndax li tax muy wacce kamil sabab bobu sharia joxewul ndigal pour ñu wacce ci kamil man na jang alxuraan ak sa su ko nexé waye jang alxuraan di wacce kamil ndax ne dañu japp wèr wi lolu bi da lay doon kon ki nga xamantene ne moo jéggi bisu altine donte dana ko woor waaye muy def yeneen xeeti jaamu yàlla ngir màggal juddub yonent bi dañ naan ko wàcc ngaw yoon ndax sabab bi tax ngay def lii sharia wutal na ko ak jaamu yàlla gu ñu xam te mooy woor bi su altine kooku mooy bu njëkk bi ñaareel bi mooy mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam màggal na ay atam ndax keroog ba muy aj dafa indi téeméeri gëléem rey juróom benn fukk yaak ñett jox Seydina Ali mu rey la ca des kooku dañuy laaj mbokk mi lan mooy firndeel ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay atam lay màggal foofu naam moom juróom-benn fukki at ak ñett la dund rey juróom-benn fukki gëléem ak ñett ngir haddiyu loolu haddiyu la waaye kan moo wax ni yonent bi foofu ay atam la doon màggal kooku benn la ñaareel bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa dund na lu yàgg ci diine muy ñaar fukki at an-ñett mësul màggal benn yoon ab juddoom ginnaaw bi ko yàlla yónnee waaye la jiitu yàlla di ko yónni it mësul màggal benn yoon ab juddoom li ñuy wax nag màggal ab juddoom nag mooy bu dee par at lañu wax te loolu moo tax a waxtaan wi kon loolee lu mu joteeg ñeen juróom benn fukk gëléem yi ak ñett tegal foofu sa baaraam yow mi nga xam ne da ngaa wax ne yonent bi dafa màggal ab ab juddoom ci ñeen fukki juróom-benn fukki gëléem yi ak ñett maanaam gëléem gu di at mu kan ci saaba yi moo ko ci loolu at mune ne mu daan màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doo ken. ñil kenn waa wàccal saaba yi nga ñëw ci yi kan moo màggal juddu yonent bi at mune ne ci rayal ko gëléem wala leneen doo ma waxal kenn ak ña topp ca ñoom muy ñoom imam malik ak ñoom abu xanifa ak shafii yoog ahmad doo wax kenn ci ñoom lu tax ndax xam nañ ne loolu yàlla ak yonent bi joxewu ca ndigal te it ñu gënoon a dégg diine ñooñu gën a xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te saaba yi ñoo waroon yonent bi ba muy rey gëlëm yi te ñoom déggewuñ ca loola kon bu dee yaa sut saaba yi aw déggin ba dégg ci loolu tuumaalal saw déggin ndax déggin wu amul ci laaya wala ci xadiis ci lo xamne dafa jëm ci diine xamal ne lolé jaarul yoon amma laaya bi muy qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu yàlla ni yonent bi waxal ne len ngeeneelal yàlla ak li nga xamantene moy yermandem nañu kontaan ci loolu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moy arrahmatul muhda yàlla da koo yónni mu nekk yërmande comme lim wax ci benen laaya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin laaya boobu lu mu jotee gàmmu mu ne dañuy kontaan ci bis bi mu judd woon foofu ñu lay laaj ay laaj bi ci jiitu mooy ndax yaa dàq kontaan saaba yi ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yaa leen ci dàq kontaan ndax ñoom kontaanoon nañ ci ba yegg ci di ko feeteel at mu ne ñuy def ay xeeti jaamu yàlla wala ñuy togg ay ñam ngir kontaan ci juddub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee yow ñoom defuñu woon loolu yow nga def ko yow yaa ne ci ak njub ndax li nga def ak aw yiw la déet bu dee aw yiw la ndax yiw woowu ñoom xamoon nañ ko wala xamuñu ko woon bu dee xamoon nañ ko lu tax ñu xamoon ko te defuñu ko bu dee defoon nañ ko indil ñu firnde waaye bàyyil saaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam ndax yaa ko gënoon a dégg laaye bi ndax yaa ko dàqoon a kontaan ci ab juddoom ndax benn at mas naa ñëw mu def lenn ci ay xeeti bernde wala ay xeeti jaamu yàlla ngir ne ci la juddu ngir kontaan ca bu fekkente ne defu ko woon yow nga def ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yiw wi nga def moom dafa xamul woon yiw woowu bu dee xamoon na ko ñi muy wax ne xamu ko woon bu dee xamoon na ko ndax jottali na ko xeet wi bu dee jottali na ko xeet wi ana la bu dee xamoon na ko jottali na ko ndax jëfe na ko loolu yaakaar naa ni ay point d'interrogation la yoo xamante ne yoo am am solo la kon mu nekk kon mbir moo xamante ne euh, laaya bépp laaya boo mën a indi buy wane ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dees di kontaan ci ab juddoom moom moo ko njëkk jàng saaba yee la ko njëkk jàng te dégge wuñ ca lan ca dégge yow bu boobaa nag imma ñoom ñoo nekkoon ci yoon wu jub wala yow yaa ne ci yoon wu jub te yaakaar naa ni ñoom seenu yoon képp koo xamante ne wàcc na ko rek wàcc nga aw yoon amma li nga wax ci alxaafid ibnu xajar Euh, danaa ci ñëwaat léegi indil la yàqu li nga xamante ne moom la wax waaye loolu sax daf ñuy génnee waxtaan wi waaye dama laa bëgg xamal ne bu fekkente ne yonent wax na jëf saaba yi wax jëf alxaafiz ibnu xajar ñëw wax wala mu jëf bu boobaa waxi xaafiz ibnu xajar du ma ko xool ibnu xajar bu ne gàmmu baax na walla am na lu baax lu ci ne am na lu bon lu ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musu koo def nga ñëw ne baax na nga ñëw ne am na lu baax lu ci ne te yonent bi musu koo def kon am na lu baax loo xam ne yonent bi musu ko def am na lu baax lu saaba yi mës ta def ah foofa du ma déglu alxaafid ibnu xajar waaye yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko dama koy wutal ngant ma ni boroom xam-xam la de waaye fii waxam bu indiwul firnde du ma ko jël ndax yonent musu koo def te moom mu ne am na lu baax lu ci ne te lu baax lu ne yonent wax na ko wala mu jëf ko digal ko xeet wi te lii bokku ca bon euh, fàtte naa waxoon naa ko naa ko indil misaal ci sunnay xasana ak sunnay nangam boole alxuraan ci benn daftar mm, ci junju Seydina Omar euh, ci euh, Seydina Aboubacar ngir bañ mu sànk kooku ci sunna asana la bokk ndax yenent bi dafa xam naa sax dem màkk sax war avion fekkee lu nekk lañ ko war a def nii yeneen daan defee sax xam naa bon sax boobu xam naa ci sunna yi xaw ma yu baax la wala déet euh, dugg avion dem màkk ndax yonent bi yaakaar naa gélém la waroon euh, dajale nit ñi euh, salaatu ci xalaatu Seydina Omar ba waxee Abdu Abdurahman mm, ne gis na ne buñ ko defee moo gën ñu def ko mën na nii am ba bitaatu xaasi kooku bitaat bu rafet la dolli Seydina Ousmane ñaareelu nodd aj bi su àjjuma bopp moom <laughs> moom itamit xam naa ci sunna asana la bokk wala sax waajiba la bokk sax parce que <laughs> ndax nit ñi buñ baree ba nga xam ne benn nodd bi rek mën naa am duñ ko dégg ni ñaa ngi ci marché ba def ay tomb ci alxuraan maasko yooyu yëpp ci sunna asana la amutoon alxuraan amutoon tomb amutoon maas ay soqeeg ay euh, ay di bind kii yeeg yëpp amu coon ci gannaaw ga lañ ko ci def de <laughs> bida bokk na ca bokk bukkin bi nga xam ne waajibale la bokk na ca defar grammaire ñi koy jàng naxu ndax ci jamono yonent bi amutoon ay ñaan def ay téere fiq yeeg ay grammaire yi yëpp gannaaw ga lañ ko def bid amu arama mooy comme masabu bu ak masabu marjiya xawaarij ak xulaatu suufiya ak takfiri ne yi nga xam ne luy wax ñu ne bidaa la kufru la ñoo yëpp ci bidaa ci bidaa mu xaraama la amutoon fi naka noonu eh, bidaa eh, manduuba salaatu tarawih jamaa ci masjid ci imam benn benn imam eh, bidaa la amutoon jamono yonent bi dañ koy def bokk na ci biddaa yi nga xam ne makruux la it taaral jàkk lu ëpp masjidu nabawi boobu eh, xoob gi ñu ko xoob ay xoma or la xoma xaalis yàq xaalis la boo demee africain yaa ngi dee xiif joxo leen ko ñu lekk moo gën kooku makruux la eh, dégg nga biddaa mu mu baaxa saaf saafaxante gannaaw julli jaaw bi ñu joxaanti loxo man jàng ma ko ci taarix man naam am na waaye borom xam yi daal ñu ngi koy boole ci biddaa numtati ku firee aaya ba noonu lu ba moo waxoon ne ku ko firee noonu borom xam waxtaan na wax naa la borom xam-xam ba ko man waxuma la loo xam ne samay wax la yàlla ne ne bi topp leen yàlla topp la yonent bi ak wali amri minkum wali amri minkum mooy lan mooy borom xam-xam yi borom xam-xam yi ñooy wax dama nettali la ñoo ko firee noonu yow nag bu la neexee nga firam loolu neexee nee <laughs> nga ok ciao salaamaaleykum bo fàtte benn point nga ne sos dañ koy gaaral ci sariya da gaaralal gàmmu ci sariya toog woo nit ñi ñu ñëw nga waxtaana lañ ci siira yonent bi nga togg ay lam ñu lekk nga ñaan yàlla yàlla nañ fi di leen bi lu ci nekk gaaral ko ci sariya ba xam lu bon la am déet ko ci sariya wala boog sa sariya sax wax Euh, bismillah ñi ngi sant yàlla di jullee ko salmal ca sunu sang bu tedd ba sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw euh, déglu nañu audio yi euh, ba mu jeex takk ci loolu kon ñu ñëw ci tontu yi bi ci jiitu moom mooy li nga xamante ne loolu wax ci bidaa xasana mu ne lépp loo xamante ne mooy bidaa bu rafet rek day dugg ci biir moo xam màggal la moo xam gàmmu la moo xam cant la moo xam lu mu doon euh, bëgguma baamu la nga xamante ne moom laa waxoon ba ñuy firi xadis ba moo di ne comme li yonent bi waxoon ne ku woote ci ak njub njub googu ak lislaam moo naan lii lu jub la lislaam moo naan lii ak réer la sunna bu rafet lislaam moo naan lii sunna bu rafet la lislaam moo naan bu ñaaw la loolu maanaam lu mat a bàyyi xel la te wax nañ ne xadis bii la ko taxaw na ñëw mooy saraxe saraxe yaakaar naa ne kenn du ne bidaa bu rafet la waaye dañ naan loolu sunna la soo xam ne sharia ci joxe ndigal keroog yonent bi alayhi salaatu wasalaam woote waaja def lu mel noonee ba nit ñoroy ko ca kon dafa daal di def loo xamante ne sunna bu rafet la ndax lislaam moo ko rafetlu kon lii lu leer nañ ñi la kon euh, bu fekkente ne da nga ne gàmmu sunna bu rafet la dama naan la kan moo ko rafetlu kan moo ko rafetlu boo nee man maa ko rafetlu ak boroom xam-xam sàngam ma la man dama koo ñaawlu ak boroom xam-xam sàngam ak sàngam bal saaba yi dañ koo ñaawlu ndax dañ ko dummoo woon wan ko gannaaw ñu ko woon jàppe wuñ ko woon ne ci diine ji la bokk jàppe wuñ ko woon aw yiw ndax bu fekkente ne dañ ne gàmmu mooy màggal juddub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam at mu ne aw yiw la comme niñ ko waxee woon wala lu rafet la kon dañ naan lu rafet loolu ak yiw woowu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu da koo faat wala moom def na ko ndax am na yiw wu rafet wu yonent bi deful mbokk yi boo nee dafa wooroon bi su altine ñu ne la kon loola mooy la mu joxe ndigal noonu lañu war a def comme ni nga xamante ne buñ jàppee weer wi ñu dem julli comme na mu jullee woon kon lii mooy li nga xamante ne moo di topp ci bunt bii kon ne sunna bu rafet loolu dafa matale lépp day dugg ci biir kan moo la wax ne lépp day dugg ci biir ndax lan ndax luy sunna bu rafet sharia moo koy rafetlu bu dee da nga ne diw ak diw sàngam ñoo ko rafetlu ñu ne la ñooña la ñu rafetlu ñeneen ñaawlu nañ ko kon li nga rafetlu ak li nga ñaawlu ak man li ma rafetloo li ma ñaawlu kontul ci sharia li kont mooy li sharia rafetlu loola rafet na li sharia ñaawlu loola ñaaw na bu fekkente ne nag da nga ne gàmmu rafet na te lu rafet loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu da faat saaba yi loolu da leen faat kon wax nañ ni am na yiw wu rëy wu am ci sharia woo xamante ne wu rafet la te saaba yeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loola moom mosuñu ko woowu yiw moom faat na leen loolu kenn du ko wax koo xamante ne ku amum xel nga wala nga am xam-xam ci sharia ñaareel bi duñu bëgg a guddal dañoo bëgg a tënk ndax point yi mbokk mi tudd dafa bari lool mu ne laysa kullu ma fi sunnati mulzim man de duma bëgg di bënti kenn koo xamante ne moom laa lay débat moom lay débattral ci wàllu arab waye li mu wax ni ci lakku arab mom jubul laysa kullu ma fi sunnati mulzim mu baamu ko ay yon nak xeyna lim bëgg wax dani laysa kullu ma fi sunnati laziman manam lepp lu ñew ci sunna rek du lu war lolu bu de lolu la bëgg wax dañ nan ko waaw waaw sunna si tuké ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam amna ci yo xamantene ne ay waref la des ko wara def kuko ko da ngay am bàkkaar amna yo xamantene nak dañ ko sopp boko defé am bàkkaar boko yaba am tuyaba boko bayé do am bakkar kon bu lolo loolu la bëgg wax waaye loolu mom gamu du dugg ci biir nga xamantene ne la yonentou bi daan def muy wor bi su altine loola mom, nekkul lu war waye nak boko defé da ngay am tuyaba lutax ndax yonentou moko don def bari joxe ci ndigal te wax lutax mu def ko moy ndax bis bi nga xamné ci la judd euh mune wax euh, kullu bid'atin dalala neena loolu dañ koy teunk ndax lan ndax yàlla wax na ni wa utiyat min kulli shay maanaam ndaw soosee nga xamante ne moo doon balqiis doon buur ca yaman yàlla nee na joxoon naa ko ci maanaam lépp wa utiyat min kulli shay joxoon naa ko lépp lépp googu ñépp boroom xam-xam yi nga xamante ne ñooy tafsir alquran yépp booloo nañ ne mooy lépp loo xamante ne buur dana ko soxla ci nguuram lépp loo xamante ne buur dana ko soxla euh, ci nguuram bi maanaa joxoon na ko ay moyens yu rëy yi buur di am ca jamono booba moyens yu rëy ya am ca jamono booba yépp yàlla subhanahu wa joxoon na ko ko kooku boroom xam-xam yi firi alquran yépp booloo nañ ci loolu kon wa utiyat min kulli shay kull liy cosaan ci kull mooy day matale lu dul firnde ñëw na tegtale ne matalewul am na lu ca des comme yàlla la mu wax ne tu tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbaxu laa yura illa masakinuhum lu ñu bëgg a xóot sax ci loo xamante ne xëy na ñiy déglu mën nañ cee bañ a jariñu lool waaye liñ bëgg a wax rek yàlla nee na eh, yonent yàlla Huud nitam ña di aad eh, yàlla ba mu yabalee ci ñoom la leen di alak loole nga xamante ne daf doon faagaagal lépp loo xamante ne moo fa ne ci ndigalal yàlla lépp lu ne ci seen dëkk ba ngelaw loolee ñëw faagaagal ko mu lu mu ca teg mu ne fa asbaxu laa yura illa masakinuhum ginnaaw ba ma waxee ne faagaagal na lépp mu setti ca ne ah la fa des rek mooy seen kër yi seen dëkkuwaay ya seen dëkkuwaay ya moom ngelaw la faagaagalu ko kon liñ bëgg a wax foofu mooy li mu wax ci xabatu sawda shifaun min kulli daa illa saam kullu googu amul lenn loo xamante ne moo ko moo ko tax suis yonente bi alayhi salaatu wassalaam nee na xabatu sawda day faj bépp feebar ba mu des dee kon feebar bu dul dee xabatu sawda da koy faj léegi nag comme la yonent bi waxoon ca beneen xadis ba alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila yi nga xamante ne moom la yàlla indi muy faj ay feebar ña ko xam-xam nañ ko ña ko réere réere nañ ko problème bi mu ngi nekk ci nga xam feebar bu nekk nan ngay jëfandikoo xabatu sawda ba mu faj ko loolu yépp taxuñoo jóg li ñu tax a jóg mooy li ñu bëgg a wax mooy yonent bi wax gi mu wax ne kullu bidaatin dalaala loolee dara luy bidaa ci diine génnu ca lu tax ndax amul firnde luy génnee lenn ci bidaa ci diine luy dugg foofu kooku benn la amul firnde ñaareel bi mooy bu ñu waxee ne am na bidaa bu rafet bu boobaa kon tuumaal nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kon wor na xeet wi mooy lan Euh, ngeen baal ma ci kaddu gi ndax yonentu bi alayhi salaatu kenn du wax ne kenn du wax lu mel noonu jamale ci moom waaye lii moom mooy ilzaam moo di ne képp koo xamante ne da ngaa bëgg a wax ne bidaa bu rafet am na ci diin lii sax du samay wax abdullah ibnu umar doon saaba ci yonentu bi salallahu alayhi wa sallam nee na kullu bidaatin dalaala wa in ra'aaha annaasu xasana damay laaj mbokk mi abdullah ibnu omar ak boroom xam-xam yi mu tudd ñan kan moo raw abdullah ibnu omar de saxaabi la ci yon ci keppaaru yonent bi la yaroo bokk ci ñi fukk yi gën a ëpp lu ñu solo ay xadis jëde ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibnu omar nee na bépp bidaa ak réer la doonte nit ñi dañoo jàpp ne lu rafet la yaa allah kii moo moo moom la yonent bi nampatal ci xam-xam mu yaroo ci keppaaram moom moo ñëw firil ñu yonent bi wax ji mu wax ne kullu bidaatin dalaala bidaal bu ne bépp bidaa ak réer la ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii moo doon dégginu saaba yi amul dara lu ci génne mu dàq bidaa bu rafet te moo yaroo ci keppaaru yonent bi waxam la jël wala waxu ña ca des ñene bidaa bu rafet dafa am duñ jël waxu ña ca des ndax ibnu umar nee bépp bidaa ak réer la doonte nit ñi dañoo gis ne dafa rafet kon nit ñi seenu rafet lu kontul waaye rafetlu sharia moo compte te lu sharia rafetlu loolu sunna la waaye imam malik ñëw nag nga xam ne ci Sénégal dañuy wax ne ci ngéeram lañu tënku te sori lool pas-pasam imam malik nee na képp ku yaakaar ne am na bidaa bu rafet ci diine mooy yaa ngi woote ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wor jot ci jottali gi nga xamante ne moom la ko yàlla santaane woon mu def ko moom la ko yàlla santoon mu def ko loolu waxi imam malik la moom laa doon wax léegi moo di ne yonent ah, imam malik sunu yilimaan nee na képp ku gis ne am na bidaa bu rafet ci diine faqad zaama anna muhammadan qad xaana risala mooy kooku mu ngay woote ne kon dafay bëgg a wax ne kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa war xeet wi jotuliwu leen loo xamante ne rafetoon rafet na waaye jotuliwu leen ko woon loolu munta dugg ci bopp koo xamante ne gëm nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga lii dafa rafet te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalu ko xeet wi jiituwu leen ci def ko wala saaba yi def ko ca kanamam mu noppi ca loola munta am ci diine waay moo tax kullu bidaatin dalaala dara du ci génn kon li ci des naa ko wutal beneen beneen audio bismillahi rahmaani maa ngi doon déglu kiyam bi yaakaar naa tuuti moo ci des parce que moom day def détails yoo xam ne mel ni kuy jàngal euh, ku nekk ci élève ibtidaaya Eh, mu ne sunna bidaa bu rafet amul yonent bi daal moo ne ku sunn ku ku sos sunna bu rafet waxaat na ku sos sunna bu ñaaw bon yonent bi préparé na na nañ sos lu rafet nit ñi eh, su fekkee dañ ne islaam saalih li kulli samaani wa makaan il faut wasaili di di sens ni ñuy jàngale nit ñi di sens méthode yi di sens selon kii le le les temps yi selon jamono selon leneen selon temps yi selon jamono selon temps yi selon euh, place yi yonent bi daal moo ne sunnatan xasanatan man siixatu humum la nakire bi siixatu umum la ak noo ko munta firi nag boo bëggul nag wax la ci gannaaw dëgg nga ne kullu lay sa ma fi na mulzim nga ne du du arab wér professeur balay jàngal maa ko gën a dégg arab wallahi wal quran al azim laazim ismu faail la bu bu bu sulaasi mulzim di ismu faail bu bu bu rubaai waa ji leen yow yow ka jàngal wallahi wal quran al azim maa ko gën a dégg arab dégg nga eh, wax nga ci kull yoo xam ne da ngay jaxase jaxase kull man li ma la wax waxu nawawi la ndax nawawi moo ko wax nawawi ëpp sa proviseur xam-xam. ibnu omar moo leen ëpp xam-xam ibnu omar ben ibnu omar nañ delluwaat ci euh, fiq lislaami luñ ko tuddee sadaidu ibnu omar azaimu ibnu omar moo leen def yonent bi fu mu jaar fu daan tukki sax fu mu daan tukki fu mu àggoon tuur ndox bu fa àggee bu safut tuur bu bugguta tuur ndox sax dina jaar tuur ndox ndax dafa war a def na la yonent bi daan def ku ko teg moo laan jàpp di jël loxoom daan dugal ci mbari bëtam ba am problème mu euh, bët ci ci euh, ci ci ci ci feeñu dundam kooku mooy Ibnu Omar ku bëggoon yonent bi la ku bëggoon sunna la waaye da ca ëppaloon delloo ci ci ci fiqul islaami Ibnu Omar wa asaimu Ibnu Omar mawjud maa ngi lay digal it nga jàng bari na ñu ci taalif mooy kayfa nataamul maha sunna na nga ko jàngaat bu baax a baax naka lañuy ñuy jëfandikoo jëfandikoo ak sunna dundoo am nas rek nga ne jeex na. il faut nga delluwaat ci boroom xam-xam nag lañuy jëfandikoo sunna bu ñu xasee ba am nas doona am naa nas rek jeex na de ca la xicaat ba commencé dégg nga eh, ak lanaat eh, ma yazid ah, ok nga ne alxuraan gaa yi du yolluñ ci dara aha kay na ko yéen bindee woon dool nañ ci de def nañ ca maas def nañ ci ay tomb amutoon ci de amutoon ca waaw man daal sa wax yi waxu kayta kayta laa fi gis nga ne lay sa ma fi sunna mulzim dama sa proviseur nga wax ko <laughs> moo demee <laughs> moo demee nga wax ko ok asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, am ma mbokk mi euh, wax gi mu wax ne ndax yaa gën a am am xam-xam boroom xam-xam yooyu boroom xam yi mu tudd ne diw sàngam nee na bidaa bu rafet diw sàngam nee na bidaa bu rafet déedéet man de ëpp ma leen xam-xam ci ñoom laay jële xam-xam ak ñu mel ne ñoom waye nak abdullah ibn umar mo len upp xam xam-xam ndax mo yaro won ci kepar yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam te abdullah ibn umar momu neena bida lepp bida ci diine ak réer la donte nit ñi dañu gis ne dafa rafet abdullah ibn umar mo wax lolu baye moy umar ibn al-khattab neena lepp bida ak réer la donte nit ñi dañu gis ne lolu dafa rafet kon rafet lu nit ñi kontul waye rafet lu sharia mo kont te lu sharia rafet lu lolu sunna la comme niñ ko waxee woon amma wax gi nga wax ne ñoom dañ kanu mashghulina bil jihad manam dañ doon jihad ci yoonu yalla mo leen te def yenn yi mbokk ragalal borom bi tabaraka wa taala jihad ci jaamu yalla yi gëna reey la bok mbolem saaba yi dañ ci doon dañ ko doon faral di def waaye mbokk jihad ndax dana te jël benn fan mooy fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm dem ne nañ ca màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam togg ca ay ñam def ca ay nangam ak nangam loolu ndax saaba yi tële woon nañ loolu déedéet de wuñ ko woon bu dee benn fan dong ci at mi nga ñëw togg ci ay bernde def ci ay xeeti jaamu yàlla yoo xam ak nu ne damay màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu saaba yi luñ mën a jihaad jihaad loolu tawu leen waaye loolu tawu leen du bus bu nekk lañ doon jihaad kon loolu aw lay la woo xamante ne wu suufee la woo xamante ne euh, dafa dese xam-xame lool Eh, amma wax gi mu wax ne yonent bi lum deful mais lum deful woon maanaam boo ko defee bidaa la lum deful woon ci diine boo ko defee bidaa la mu ne loolu kenn du ko wax waaye lum tere la ñuy wax mbokk loolu boo ko def boo ko waxee diine ji sànku diine ji day sànku yonent bi alayhi salaatu wassalaam mboolem luy bidaa rek mooy li nga xamante ne defu ko woon foofu lay dugg lépp luy bidaa day dugg foofu mooy lim deful woon lu tax deful loolu ndax bokkul ci diine ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu deful waxu ko defuñu ko ci kanam mu noppi ca xamal ne loolu bokkul ci diine abadan ndax bu ci bokkoon dana ko jottali te jottali gi mi ngi amee ci waxam ñu dégg wala mu def ko ñu gis wala ñu def ci kanamam mu noppi ca waaye boo ñëwee ne am na biddaa bu rafet bu yonent bi deful te loola lu baax la kon dañ naan la loola kon bokkul ci diine ci lu tax ndax bu doon lu baax la moo la koy njëkk a def te dana ko digal saaba yi wala tàggat kenn wala ñenn ci saaba yi ñu def loola mu bàyyi ko ca muy sunna taqririya comme ni nga xamante ne noonu la amee ci yu bare bëri kon loolu it euh, lu mat a bàyyi xel la kon wax ne lu maanaam faw mu tere ko te yonent bi da koo tere sax foofu nag tere gi mooy lan mooy tere gim tere bidaa yonent bi alayhi salaatu ba mu ne wa iyaakum wa muhdathaatil umur maa ngi leen di wattandikuloo yi ñu sos ci diine booba la tere lépp loo xamante ne mooy bidaa ci diine moo xam bi nga rafetlu moo xam bi nga ñaawlu yépp yonent bi salallahu alayhi wa sallam ñaawlu na ko tere na ko xupp na nit ñi te wane na ni loola musiba la yóbbi nit ki kon yonent bi tere na ko kay waaye tere dafa bëri ay façon yu muy amee comme ni nga xamante ne noonu la amee ci usulul fiq loolu duñ ca dugg ndax loolu tey loolu tax ñoo jóg mu ne bidaa bu rafet boo bëggee xam ndax gàmmu bidaa bu rafet la nee na nee na ma man naa ko peese ci sama sharia mbokk man moom ma sharia sharia bi mooy diine ji diine yàlla mu jox ndigal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jàngal ko nit ñi leeral leen ko leeral na ko ba lépp leer ba lépp mat te gàmmu gii nga xamante ne moom ngay def bokkul ci li mu joxe ndigal ne dañ koy def ngir sàkku ba bu doon ga màggal juddu yonent bi fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm wala beneen bis bu mu mën a doon bu doon aw yiwa nga ca woo xam ne dañ koy taataan ngir yàlla subhanahu wa taala jox ñu ko bu boobaa yonent moo koy njëkk a def wala dana ko digal saaba yi wala dana tàggat ay saaba ñu def ko ci kanamam mu bàyyi ko ca mu sax doon sunna bu nit ñi di topp ba addunay tukki kon gàmmu boo nee nañ ko peese ci balance su alxuraan ak sunna buñ ko fa peesee dañ naan ah waaw gàmmu de am na ci alxuraan ak sunna mooy woor bi su altine waaye gàmmu gi ngeen di def fukki fan ak ñaar ci weeru gàmmu loola moom alquran ak sunna da koy dàq ndax yonent daa ñëw yàlla jox ko ndigal mu indi ak jaamu yàlla ngirub juddoom mooy woor bi su altine yow nga ñëw indi lenen. leneen loolee nga indi dañ la koy delloo comme ni ko yonent bi waxee ci xadis bu wér ba euh, amma wax gi mbokk mi wax ne dajale giñ dajale alquran nee na loolu sunna bu rafet la wala bok bida bu rafet la dajale giñ dajale alquran mbokki julit yi loolu maslaha mursala la mooy lan mooy loo xamante ne du yokk ci diine ji dara waaye day tax diine ji gën a ñoŋ maanaam du ci yokk du ci wàññi mbokk yi alxuraan dañ koo bindoon ci ay der ak ay yax ak ay xobi garab alxuraan ja ñu bindoon foofa moom lañu sotti bind ko ci ay kayit mu nekk ab téere yokkuñu ca araf yokkuñu ca baat yokkuñu ca leneen nam wacce Won ci yonent bi non lañ ko bindé ci téré bi kon loru, amul lenn luñu yok ci alquran koku ben la kon loru maslaha mursala la moy lo xamantene amul lenn lu muy yok ci jaamu yalla gi waye day tax jaamu yalla yi gëna ñong ñoŋ moo tax saaba yokku ñu dara ci alquran lañu bindoon ca der yaag ca xeer yaag ca yax yaag ca xobi garab yi mom lañ jël bindu ko ci ay kayit comme tey ni ñu jëlee alxuraan ji bind ko mu nekk ci sa biir portable mu nekk ci sa biir machine alxuraan ja saaba yi doon jàng moo nekk noonu ba léegi mais jumtukaay yi ñu koy def rek moo wuute loolu mooy maslaha mursala mi ngi mel ne microphone ba ne ca jàkka ja nga taxaw di nodd nodd allahu akbar baat yi ngay wax ca jamono yonent bi baat yañ doon wax ba léegi moom la noddukat bi wax waaye nag microphone bi da koy gën a ko foo xamante ne fu sori lay doon te loolu bokk na ci jubluwaayu nodd mooy nit ñi dégg ko kon loolu maslaha mursala la day tax jaamu yàlla gi gën a ñoŋ waaye du ci yokk dara du ci wàññi dara lii lu mat a xam la mbokki jullit yi euh, kon dajale alxuraan bu njëkk bi mooy loolu ñaareel bi mooy ijmaau saxaaba xujja mooy jëf joo xamante ne saaba yi ñoo ci booloo def ko kenn taxawul ne lii du nii loola bu boobaa ci diina ji la bokk même bu fekkonte ne dajale alxuraan du maslaha mursala ak jaamu yàlla la gu ñuy def te dajale alxuraan maslaha mursala la même bu fekkonte ne ak jaamu yàlla la saaba yépp ñoo ci booloo te yonent bi sallallahu alayhi wa la moo xamle loolu moo di ne laa taj moo wax ni laa tajtamiu ummati ala dalala sama xeet wi duñu dajal ci ak réer duñu dajaloo ci ak réer booloo ci ak réer am ku ne ah du nii de waaye ñoom ñëpp ñoo ànd ca loola kon loola sunna la kon loolu di ko tegtaloo ci ne dañuy gàmm loolu moom kalaamu layl yamxuuhu nahaar maanaam waxi guddi la moom bu bëccëg ñëwee rek mu dem yoonam amma wax gi mu wax ne war avion di dem màkka loolu bi daala kon <laughs> loolu moom wax dëgg fa yàlla mbokk maa ngi ñaan mu bañ a jëm kaw lu tax ndax sharia sharia dafa am loo xamante ne moom lañ tuddee ay wasaa'il mooy ay jumtukaay yu ñuy jëfandikoo jumtukaay yooyu yu baree bari sharia def cee noppe loolu moom lañ tuddee maslaha mursala gi ñu doon wax léegi mooy li ñuy jëfandikoo li ngay jëfandikoo ba jëm ba jëm màkka loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam néewul war leen mbaam néewul war leen nangam moom dafa jël rek jëfandiku kaay ba nga xamante ne moo amoon ca jamono mu war dem ndax loolu amul benn relation ak jaamu yàlla ki mooy li nit ki di war pour dem màkka wala mu dem feneen moo tax loola du dugg ci li nga xamante ne mooy buntu bidaa abadan ndax jëmmi jëfandikukaay yi ngay war dem Kaaba ga dem euh, dem Makka du da doo wax ne damay war mbaam ndax mbaam moo ëpp tuyaaba doo wax ne damay war gaal ndax gaal moo ëpp tuyaaba ku ku yéene loolu indi nga bidaa ci diine ndax jëmmi jëfandikukaay gi du moo lay jox tuyaaba ji te it amul relation ak jaamu yàlla gi lu la mën a yóbbu ba nga dem joxe ko rek jaamu yàlla ga moom joxe ko na la ko sharia sante kon loola sharia daf caa noppi. bàyyi kook nit ñi nga xamante ne jum jumtukaay boo mën a jëfandikoo dem màkka baax na moo tax loolu moom moo gën a sax doy waar ba nga xamante ne moo ko jiitoo a ah, kon na yem foofu ndax mu ngay bëgg a guddati. bon eh, man maa ngi leen di tàggu parce que mënatuma continuer ngir sama maslaha famille eh, en tout cas maa ngi tontu naan yonent bi naafila da leen jiite loolu nu ko wax élèves ibtidaa yi dama ne ñi naafila tey léegi di ko def alquran di def eh, naafila kaamil di def salaatu taajud ñëpp ñëw di ko def yonent bi defutoon noonu daaxut def noonu defin ba commencé xoon na ko comme bu bañee loolu ci gàmmu na commencé na gàmm daana xoor bon nit ñi lañ ci yokkaat moom lu tax ñu yokk ci di di naafila kaamil bi lépp lu tax ñu yokk ko si man Seydina Ousmane lu tax mu yokk ci ñaareelu noddu man daal maa ngi leen tàggu fi yal na yàlla euh, jàppal leen jàpp walum jullit euh, su fekkee wax naa fi loo xam ne it euh, foor yi kii la maa ngi koy jégalu di ko xamal daal ne ko nar liiree xat na nangam nag na koy wax ñi ko ñi koy jàngal ne ko mm, <laughs> ñu ngi sant yàlla dégg nga ok asalaamaaleykum wa rahmatullah yal na yàlla jàppal leen maa ngi leen di invité sama gàmm gi incha allah samedi bi ñëw waa Tivaouane mbokki Tivaouane ñooy gàmm maa nga fa dimanche ci topp mbokki waaw mbokki mur yi ñooy gaamu maa nga fa eh, ku gis na biddaa des na ci yow salaamaaleykum wa rahmatullah eh, waaw bi ci topp kon nañuy gën a tënk mbokk yi ñi ngi jéggalu ci guddal bi ñoo tënk bu ñuy wax duñ xool sax li nga xamante ne moom la ñu enregistré waaw li li mu wax mooy kon tarawih mooy naafila gi nga xamante ne moom la nee na Umar jiital kenn ci saaba yi ñeneen ña topp ci ginnaaw mu ne loolu bidaa la waaye bidaa bu rafet la ndax amul woon ci jamono yonent bi moo di ne mbokk mi na dem yëriwaay li nga xamante ne mooy xadis mooy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam képp koo xamante ne yaa ngi wax ci diine ak di défendre lenn ci diine war ngay nangoo yër lu bari rawatina ci wax yonent yàlla muhammad sallallahu ak i jëfam mooy sunna téere bi gën a wér ci téere yi ginnaaw téere yàlla bi muy saxiixul buxaari yi ëmb wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ju wér boo ci demee da nga ci fekk xadis a tudd ak saxiixu muslim moo di ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci weeru koor gannaaw julli gee ci guddi gi maanaam gannaaw julli gee taxaw na ci jàkkaam di julli aw nit topp ci gannaawam mu jiite leen la ba sottal ñu tasaaroo ku ne dem ñaareelu guddi ga mu def noona ñetteelu guddi ga mu def noona mbooloo mi fees dell ca jàkka ja ñeenteelu guddi gi jàkka ja kenn xaju fa mu toog néegam génnul toog néegam génnul gaa ñi toog ci jàkka ji di ko xaar ba fajar xar bañ noddu fajar yonent bi julli ñaari rakkaay fajar këram ñëw ci jàkka ji jiite leen suba bi mu leen jiitee ba wëlbati ku jàkkaarloo ñoom ne leen li ngeen nekkee woon biig wumpu ma waaye nag dama bañ a continuer di julli naa fi la ngeen topp ci sama gannaaw ma dappetoo ko yàlla farataal ko ci yéen te yonent bi dafa yërëmoon aw xeetam bañ gu mu bañoon yàlla farataal ko ci xeet wi moo tax mu daal di taxaw arrêté bàyyi ko arrêté bàyyi ko wane illa ba maanaam maa taalil wane illa ji tax mu bàyyi ko day bañ yàlla farataal ko bi mu faatoo Omar ibnul Xataab bi mu ñëwee doon deuxième xalifaam ginnaaw Abu Bakr la ñëw daal di dekkal sunna soosee lii mooy man sanna sunna xasana mooy sunna soo xamante sharia rafet na ko nga ñëw dekkal ko Omar non la def daal di jiital kenn ci saaba yi comme na yonent bi jiitoo woon ña ca des topp ci gannaawam comme na saaba yi toppee woon ci gannaaw yonent bi ñu jiite tarawih omar ba mu paree la wax waxam ju siiw ja nicmatil bidaatu haadihi boroom xam-xam yi taxaw foofu taxawaay lu tax omar wax loolu lu tax omar wax loolu ne ah lii de bidaa bu rafet la wala bidaa bu baax la omar bu dee bidaa ci diine moom loola du mën a nekk bidaa ci diine lu tax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko njëkk a def saaba yi topp ci gannaawam kon loola sunna la lu taxoon mu bàyyi ko mooy ndax da doon bañ yàlla farataal ko ci jamonoy Omar diine mat na li ñuy farataal ak li ñuy sopp ak li ñuy araamal ak li ñuy sib lépp leer na Omar daal di ñëw daal di dundalaat sunna soosee yonant bi dakkaloon ngir ñu bañ koo farataal ndax léegi moom mënatu la nekk farata yëf yi daal di wéy kon kay lii sunna la foofu bi daa amu fa ñaareel bi mooy ba ko Omar defee saaba ya ñépp nga fa woon ndax Omar dafa tere woon saaba yi kenn du génn Madina lu dul ñi nga xam ne ay gouverneur lañu yu muy yabal ñuy dem di jiite ji ay dëkk ñëpp da leen a téye woon biir Madina moo tax bi Ousmane ñëwee dañoo saaba yi dañoo tasaaroo moo tax boroom xam yi wax nañ ne loolu bokk na ci li indi fitna bi almuhim loolu taxu ñoo jóg Omar ibnul Xataab ba muy def loola saaba yépp nga fa woon waaye kenn ñépp nga fa woon waaye kenn ah, mbokk mi de génne génne nañ ko lu xew waaye kenn mësta wax ni kenn mësta wax ni Omar al-Khattab li nga def jadd na yoon manam ni nga jitalé kenn saaba yi top ci ginaaw li yonent bi daawu ko def waye ñepp dañu and ak mom top ci gannaaw yi jamu jital loolu moy wone ne kon ijmaau sahaba day ñëwaat fofu kon li kay lu leer la mbokk julit yi euh, amma wax gi mu wax ne euh, maanaam nodduk Omar nodduk Omar li ñu wax ci Usman? li ñu wax ci Omar euh, nodduk Usman? li ñu wax ci Omar lañ cey wax ne saaba nga fa won waaye kenn newu ca woon ni Ousmane wàcc nga yoon te Ousmane ba mu wàccee yoon ba nekkee xalifa wàcc yoon ca Mina dem doon julli ñeenti rakka Ibnu Mas'ud dafa ni ah Ousmane wàcc na yoon kon nodd gi bu doon dafa wàcc yoon kon danañ taxaw ne wàcc na yoon waaye ñoom ñëpp bañ ci àndee noppi ca ne cel ànd caag moom loola day daal di nekk ijmaau saxaaba te it ak li yonent bi doon wax sunnatul xulafaa ir rachidin yoon la woo xamante ne al xulafaa ir ñoo ko rëdd dañ naan xulafaawu rachidun seenu yoon mooy yoonu yonent bi naam waaye yonent bi sallallahu alayhi wa xam xamle na ni kon ñoom am nañ xam-xam boo xamante ne du ñu wàcc sunnaam mu ga mu tazkiye leen mu tazkiye leen mooy xamle ne ñoom ak maanaam euh, lu ñu def loo xamante ne kenn ci saaba yi bañu ko rek loola bu boobaa day nekk lu lu existé waaye loolu sax tax ñoo jóg tey wax gi wax ne nag Euh, nax wook sarf mooy grammaire ak yu mel noonu yi ñuy jàngalee làkku arab man de damaa xamut euh, grammaire ak loolu lu yoonam ci jaamu yàlla maanaam nit ki bu jàngul grammaire ah de ñun suñu yaay ak suñu papa yi ne ca réew maak feneen ak feneen xaw ma fu ñu jëm ndax ñoom jànguñu grammaire u arab musu xamuñu sax dara ci arab lu dul ay baat yoo xam ne ci la ñuy jaamoo yàlla xëy na ci julleegee ko niru kon jàng grammaire loolu min al masalih al mursala comme niñ ko waxee woon maanaam jumtukaay la bu nit ki jëfandikoo ngir mën a dégg làkku arab kon lolu jote mo mo nga jang ko ci làkku français ñoyam yem arab fi mu gëne rek fofu moy bo jangé grammaire arab ba dégg làkku arab ci ngay mëna dégg alcorane ak sunna kon kay la bu nit ki di jëfëndiko pour mëna yegg ci dégg alcorane ak sunna kon lolu yoonam neegul ci li nga xamantene moy buntu bida. kon mbokk yi problème ñu bari bari xamé wuñu bida ak almasalihul mursala wuñu bida ak li nga xamantene moy al masalih al mursala mooy yi nga xam ne ay jumtukaay la yoo xam ne day ñoŋal ak jaamu yàlla wala nit ki man cee jaare ba yegg ci jaamu yàlla gi mu ñoŋ wala euh, lu mel noonu waaye bokkul ak li nga xamante ne moom mooy bidaa ñu baree bari xàmme wuñ loolu mbokk mi nag ci loolu la tàbbi euh, naka noonu indi na yeneen ak yeneen mooy aaya bi nee na aaya bi ki ko firi boroom xam-xam la waaw boroom xam-xam boobu ndax moo ko gën a dégg saaba yi lu tax saaba yi ñoom daawuñu feete juddug yonente bi salallahu alayhi wa sallam te ñoo ñu njëkk a jàng laaya bi at mu ne lu tax daawuñu ko def loolu mooy wane ne kon ñun mënuñoo am dégg sut seenu déggin mënuñoo xër ci aw yiw ba sut leen ni ñu xëre woon ci aw yiw te ñoom saaba yi musuñoo màggal juddu yonent bi at mu ne ngir ne dañuy kontaan ci juddub yonent bi wala ñu koy jagleel lenn ci ay xeeti jaamu yàlla loolu saaba yi daawuñu ko def lu tax daawuñu ko def te ñoo doon jàng laaya gën ñu ko dégg yonent bi sallallahu alayhi wa mii ndeyi mbill gi alayhi salaatu wassalaam musul màggal ab juddoom te moo ñu jàngal laaye kon kontaan ci ab juddoom moom fam ci yemoon mooy woor bi su altine kuy topp sayduna muhammad kon yamal ca loolee comme na ca saaba yi yeme woon gannaawam taabiuuna ya toppoon ca seen gannaaw yem ca gannaawam ñoom imam malik di sunu yilimaan ci ngéeram maanaam yemoon ak ña ñew seen ginnaw ba ñetti sékkal gannaaw ga lañ doog a sos li di gam royé ko ci ñi nga xamantene ñoy chrétien yi ah kon kay loolu mbokk julli di su fekkente ne xam nga ko euh dalay bir bir gu leer nañ ni kon day nekkete yote te euh, lii nga xamantene moy euh, magal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, amul lenn loo xamantene euh moy firndel ni saxna ci diine ndaxte bu saxoon ci diine di aw yiw kon yonent moo ñu ci jiitoo ki saabaam ak ñi topp seen ginnaaw ba sunu jonn yàlla yi te ku jàpp ne lu rafet la te boo ko defee da ci am aw yiw loola la muy indi mooy da nga naan kon am na yiw wu rafet woo xam ne yonent bi moom euh, loola faat na ko faat na saaba yi newoon ca euh, keppaaram te ñooñu gënoon a xër ci aw yiw te ñooñu ko gënoon a xam kon loolu yépp boo ko boolee day wane ne kon loolee euh, du mbir moo xamante ne dees koy jaamoo borom bi tabaraka wa taala kon daal mbokki jullit yi mbokk mi fi may jeexale mooy tomb bu am solo bu mu indi nee na sunna du lépp mooy li war da ngay def li nga man li ci des nga bàyyi ko gis nga sunna si wér tukkee ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam kenn munta def lépp matale ko kon lan moo tax ngay sos leneen lu yees lu bokk la la mu tëraloon ci sunna lépp maanaam képp ku sos lu yees ci sharia jamono ba nga koy def nga xam ne loola dafa yees bokkul woon nag la yonent bi doon dafa ki saabaam ca jamono booba am na lu sax ci sunna loo mënoon a def palaasam nga bàyyi ko fa di indi leneen lu yees kon ñun yonent bi dañoo indi diine ju mat joo xamante ne laajatul ñuy sos dara gauche ak droit buñ ci tënkoo dañuy yegg ci ngërëmal borom bi tabaraka wa taala te loolu kese moo ñu mën a yóbbu ci ngërëmam moo tax mu waxoon waxam ju mat ju matale ja maa min xayrin yuqarribukum min allah illaa wa arshadtukum ilay amul wenn yiw wu leen di jegee la yàlla lu dul ne tegtal naa leen ko man yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam amul wenn yiw wu leen di soreele yàlla di leen jegele sawara lu dul ne tere naa leen ko alayhi salaatu wassalaam kon lan moo des mooy lim ñu digal ci yiw ñu ngoy ca def ca lañu man moo tax mu ne woon xam gum xamoon ne lim indi lépp ci aw yiw kenn mënu koo waabale def lépp sunu waxtu xaju loolu maanaam xaju ci moo tax mu ne maa am ida amartukum bi cheyin fatu minhu mastataatum bu ma leen digalee dara def leen ci lu ngeen man ndax lim ñu diggal lépp kenn mënu ko kenn mënu koo matale yi ñu sopp yépp kenn mënu koo matale yu war yi moom ñëpp dafa war ñu def ko lu nga tële boo tëlee moom yombal ñëw waaye yi ñu sopp kenn mënu koo matale moo tax mu ne bu ma leen digalee dara fatu minhu mastataatum na ngeen ci def lu ngeen man koo xamante ne nag munoo def li yonentu indi lépp ci lu ñu sopp kon amoo aajo pour di sos leneen lu yees waaye li gën a garaaw mooy nga sos leneen lu yees fonk ko fonkeel gu sut yu yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale woon mu yu ñu sopp yu leer woor bi su altine kay mbokki jullit yi lu wér la lu tax nga bàyyi ko fa di def leneen loo xam ne amoo ca ndigal mu ne wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu lu ma leen tere na ngeen ko bàyyi ndax ndax bàyyi moom dafa yomb bàyyi moom toogal rek def na ngeen ko wattandiku lu ngeen man waaye dani lu ma leen tere na ko bàyyi ndax bàyyi kenn talewu ko waaye nag def li mu indi lépp loolu moom dañ ko maanaam euh, nit ñëpp mënuñu ko kon loolu mooy wane ni kon sunna mat na mbokki jullit yi foofu lañuy ñuy tëjee di ñaan borom bi tabaraka wa mu defal ñu tawfiq defal leen ko may ñu ak dégg ci diine ndax ku yàlla may ak dégg ci diine comme ni ko yonent bi waxoon euh, ku yàlla mayuk dégg ci diine euh, dafay دفلي منام يلا نمنا تيو او يو والسلام عليكم ورحمه الله نمنا يو لازم لازم غوا خو لازما خينا لم بغا واخ داني ليس كل ما في السنه لازما بون يوي خنا سو بروجي خنا دا دانو xam nga kuy wax di def irtijal bokut ak bokut ak kuy kuy bind yow bo ne mulsim lazim lañuy wax bul de deltu gannaaw assalamu Euh, mbokk yi euh, dimbali leen ma ngeen atte maag mbokk mi nga xamante ne moo ni laysa kullu shay'in euh, fi sunnati mu ne na man laazim la wax dimbali leen ma ngeen indil ma fi ma waxe woon loolu ba mu xam ne lii mu wax du noonu xëy na li mu bëgg a wax dani laysa kullu ma fi sunnati laaziman mbokk gis nga ak wayaf mooy wàcce sa bopp bañ maanaam buñ la waxee loo xamante ne dëgg la axadathu l izzatu bil ithm maanaam nga daa di fettéerlu loolu baaxul mbokk dama ni la laysa kullu cheyin fi sunnati laaziman kooku boo delloo ci ni ma ko waxee woon noonu lay ñëwewaat bul yokk ci laax bi karaw bul yokk ci laax bi karaw juum nga ñu jubbanti la yéegoone juum nga ñu jubbanti waat la waaye waay yemal foofu man déggante wu maag yow arab waaye nag sama mbokkum jullit nga sama mbokkum daara nga boo juumee danaa la yëgal ne juum nga boo ko nangoo baax na boo ko nanguwul nañ continuer affaire u làkku arab yi maa jóg waaye gàmmu gi moom a tax a jóg barakallahu fiik yal nañu yàlla defal tawfiq defal la ko maanaam taabiir bi dafa daane say xërëm yu bari lépp li ngeen yaakaar ne lépp lu rek dañ koy jëfee laysa kullu ma fi sunna mulzim laysa kullu ma fi sunna mulzim ok wasalaamaaleykum ñu dimbale ma nag ok dama am sama kii maslaha yu ma war asalaamaaleykum <laughs> wa rahmatullah mbokk mbokk eh, wallahi dama bëggoon nga bàyyi arab gi parce que yaa ngi juum ñu lay jubbanti ngay gën a baamtu sa njuumte yëg nga ni fi mu ne nii juum nga waaye nga ngoy ci njuumte loolu ba kañ wacce nit ki wacce bopam dafa bokk ci melokaani borom xam-xam yu mag ya waaye loolu ñoo jóg man li ma tax a jóg mooy gàmmu gi ba léegi fa ñu taxawoon fa la ñu taxaw mooy lan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoonal na jaamu yàlla ngirub juddoom mooy woor bisu altine lii mooy sunna ca la ne woon ca la saaba yi nit ñu baax ñi ne ba quatrième siècle la gàmm gii ñuy wax at mu ne doog a sosu gàmm googu nag ki koy def bu fekkente ne dafa jàpp ne def gi mu koy def aw yiw la lu rafet la bu boobaa kon dañ koy wax ne ko yiwu rafet woowu ndax yonent bi defoon na comme déet danaan defu ko waaye rafet na waaw loolu nga wax ne rafet la kan moo ko rafetlu yaa ko rafetlu wala sharia ko rafetlu man maa ko rafetlu li nga rafetlu sa moroom da koy ñëw ñaawlu bu dee yiw woowu yonent bi xamoon na ko ba pare jottaliwu ko xeet wi ah kon yaa ngi koy tuumaal ci yiw mu waroon a jottali xeet wi te jottaliwu jottaliwu leen ko bu dee da nga ne jottaliwu leen ko waaye jëfe na ko kon wax ñu yonent bi fan la doon màggale at mu jot ab juddoom saaba yi yaroon ci keppaaram naka noonu mbokk yi mbokk mi ñun fii lañ doon waxee <laughs> ñi ngi ñaan borom bi tabaraka wa defal ñu tawfiq defal leen ko wasalaamu aleykum wa rahmatullah sa proviseur nga ne ko am na benn sénégalais bu nekk fële ca Italie nee na mu fekk yaa yaa ma jàngal laaziman lay sa kulluma fi sunna laaziman nekk nee na mu ne baaxul nga delluwaat ci ibnu ibnu Malik rek yooyu nga nga xoolaat lu <laughs> que sunna moom du moom mooy waral dañ koy waralal ku koy waralal mooy yonent bi. Euh, sëñ bi man ba ma di ba la jubbantee ci loolu. gis nga ba ma la jubbante ci lii laa laa fa bàyyi ko woon gis nga laa boo ni woon mul mulziman kon bu boobaa la ñuy wax ci ne maanaam mii moo gën a wér mais waaye man ci dama la doon jubbanti ci grammaire da ngaa juum ma jubbanti la te yégoo ni da juum bàyyi loolu man wax naa la ne sama wax doo ci dégg mukk laazim laaziman laa la waxoon لازم لا لا وخون تي لولو مو غنا جوب تي معنى اما ملزم موم آه، مانام لولو موم دو عرب داخ عرب موم دو رفا موك ليغا خامتيني موي خبر ليس بايل فوفو سا نجومتي داي غنا ري رك سا نجومتي داي غنا ري رك генال فوفو نيوال تي غامو جي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه، مبوك man de dama gëm ne xëy na lu mu néew néew bu dee ay fan yu néew yaa ma ko magee waaye nii ngay waxe nii maanaam mi ngi bëgg a nuru waxi gone nga baal ma ci waxin wi dangaa juum jubbanti nañ la nangul ne dama juum ñu continuer loolu taxu ñoo jóg maanaam bul taxaw ci sa njuumte li ba fanaanal ñu fi nañ wax ci gàmmu gi gàmmu gii ngeen di def fukki fan ak ñaar ci weeru wii ñu nekk muy rabiul awal ngeen ne da ngeen ciy màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne leen màggal googu ngeen koy màggal ci xeetu jaamu yàlla bu ngeen mën a def dañ leen di laaj loolu aw yiw la wala du aw yiw bu dee aw yiw la yiw woowu ndax yonent bi xamoon na ko wala xamu ko woon ñemewu leen a wax ne xamu ko woon da ngeen naan xamoon na ko ñu ne waaw bu fekkee ne xamoon na ko ndax jottali na ko xeet wi su fekkente ne jottali na leen ko indil ñu firnde su fekkee ne da ngeen ne jottali wu ko bu boobaa tuumaal ngeen ko bu fekkee ne da ngeen wax ne dafa rafet ndax su ndax bidaa bu rafet dafa am ñu ne leen biddaa bu rafet boobu kan moo ko rafetlu yow yaa ko rafetlu man li nga rafetlu dama koy ñaawlu li ma rafetlu man yow danga koy ñaawlu kon sa rafetlu ak sama rafetlu kontul bu doon bu ku ne rafetloo dara loola di diine kon diine yonent bi sànku na kon li nga rafetlu li nga ma rafetlu kontul li kontu moy lan moy li lislaam rafetlu moy alquran ak sunna yonent bi li mu rafetlu moy wor bisu altine mbokki julit yi moy wor bisu altine sa yi yeroon ci keppaaram motax tax musuñoo weesu foofu ndax ne lolu sharia ko rafetlu te ku ko def am tuyaba boko defé da nga am tuyaba ngir ñett yoy yep yonent bi tuddu nako yonent bi neena wor bisu altine ndax ci la juddu wor bisu altine ndax ci la yalla wacce ci mom alquran wor bi su altina ndax yalla da ci yëkëti fi jami mom ak al khamis te dafa bëgg bu ñu yëkëti jëfam mu fekk mu wor bokk julit yi li jaamu yalla la go xamanteni sharia tek nako ngir juddub yonent bi ngeen bayyi ko fa mo xam da ngeen koy def mo xam defu len ko ngeen sos gu yes sos gu yes te yef yi nga xamantene mom la fi sharia reddon ngir li ngeen di def lolu bokku na ci wacc yoon wi nga xamne mom la yonent bi redd ca jaamu yalla goga tayib li ñu taxoon a jóg mooy abdullah ibnu omar li mu wax ne bépp bidaa ak réer la donte nit ñi dañoo gis ne lu rafet la lool lii abdullah ibnu omar wax yonent bi salallahu alayhi wa sallam moo ko njëkk a wax moo ne bépp lépp bidaa ak réer la waaye nag yéemu naa ci koo xamante ne saxaabi yi day wax wax joo xam ne dafa dëppoog waxu yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam ibnu omar waxu yonent bi la doon firi kullu bidaatin dalaala mune bépp bida ak rir la comme niko yonent bi waxe wa in an-nas xasanan doonte nit ñi dañu gis ne dafa rafet ndax yonent bi mom dafa gis ne lolu ak rir la kon kay waxu ibn umar dafa wér waye xolo waxu ibn umar ñu nangu ko fa bàyyi sànni ko tek ne ndax dëppoowul ak li ñuy def dëppoowul ak bida bi ñuy dundal di ci dund jël yenen waxi borom xam-xam yo xamantene abdullah ibn umar moy seen roy waye ci xam-xam ak ci diine ci lépp nga jël seen wax nar koo teg ci waxu Abdullah ibn Umar bi nga xam ne dafa wuuteeg yexu waxu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii day mbir mu yéeme la ibnu Umar lépp loo xamante ne moom la def ci loo xamante ne lu wuuteeg sharia la saaba yi wuute nañ ci ak moom moo tax duñ ca ànd ak moom moo tax saaba yi daawuñu def lenn loo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe wu ca ndigal lenn nag laa wax waxoon nañ Umar lim defoon yonent joxe na ca ndigal Ousmane naka noonu saaba yëpp ca booloo te yonent bi saaba yi wala boog aw xeetam duñu booloo ci loo xamante ne ak réer la ak yeneen ak yeneen dajale giñ dajale alquran saaba yëpp ci booloo te yonent bi nee na duñ daje ak saaba yi lu ñu booloo def ko rek xamal ne loola eesh dafa dëppoo ak li nga xam ne loolu la yonent yàlla bi jàngale alayhi salaatu wassalaam kon loolu mooy li nga xamante ne moom lañ doon yokk ci lii nga xamante ne moom la mbokk mi doon wax tayib nee na nañu jàng naka la ñuy jëfandikoo ak texte loolu kay mbokk yow lañ ko waroon a laaj man ni ñuy jëfandikoo texte mooy lan mooy texte bu ñëwee digle ma def bu teree ma bàyyi texte bu ñëwee fa mu yemoon fa laa yem texte ñëw na ne gàmmu mooy woor bi su altine ma woor bi su altine yow nga ñëw ne fukki fan ak ñaar ci weeru gàmmu laay def ay xeeti jaamu yàlla sàngam def ci ay bernde sàngam ngir kontaan ci juddu yonant bi ma ne la loolu de texte ñëwu ci benn te bu dee aw yiw nga ciy wut nga jàpp ne lu rafet la woowu yiw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defu ko waxu ko defuñu ko ca kanam mu noppi ca te bu doon loolu aw yiw la ñoom ñoo ñu cay jiitu waaw nii la ñuy jëflanteeg texte mbokki jullit wax gi nga wax ne alquran nga ni damaa wax ne yokkuñu ca dara dama ni alquran niñ ko doon jàngee ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñee yokkuñu ca benn baat gis nga tomb yi te loolu moom lañ tuddee ak dopt loolu sax daanaka buñ ca xóotee Euh, taxuñu woon a jóg moom lañ tuddee ab dabt xam na dafa am tuddee ar rasmu wa dabt ar rasmu mooy yeexu ni saaba yi bindee woon xaraf yi amul woon ay tomb amul woon dara ginnaaw gi ñu déggul arab mokkaluñu woon alxuraan ñëw di yàq alxuraan ji yàq mu yéeme ñu daan nekkoon ngir sàmm alxuraan ba kenn du yàq niñ koy jànge nañ ko nañu defar to kii tomb yi ak maska yi ba nga xamante ne ku koy jàng da koy jàng comme na ko sayyiduna muhammad doon jànge waaye mbokk yi damay laaj ginnaaw mi e, boroom xam-xam yi tombee alxuraan maas ko ndax nañ doon ndax dafa am wenn saar wuñ doon jàng yokk ca benn laaya wala ñu yokk ca benn baat déedéet waaye nañ ko doon jànge ci jamono yonent bi noonu lañ koy jàngee ba sunu jonn yàlla tey jii kon tomb yooyee ak maaska yooyee moom lañ tuddee al maslaha al mursala wax naa ko waxati ko waxati ko moo di ne moom du yokk dara ci alxuraan ji waaye nag dana ko ñoŋal ba nga xamante ne danañ ko jàng comme ni mu wàccee ci sayduna muhammad te loolu yonent bi digle yonent bi nee na woon ku bëgg a jàng alxuraan mu nëtëx wér comme ni ko yàlla wàccee na jàng comme ni abdullah mas'ud di jàngee léegi nag ba gaañ a ñëwee mënuñoo liir ba mbind mii nga xamante ne moo amoon ci jamonoy saaba yi mbind moomu mënuñu koo liir ñu teqaleel leen araf yi nga xamante ne amul tomb ci lañ tomb ci kaw ak lañ tomb ci suuf ñu xàmmee leen ko ne lii tomb dañ koy tomb ca kaw ngeen ngeen xam ne kooku ta lañ koy jànge lii ñu tomb ko ci suuf ñu xam ne yà lañ koy jànge loolu moom mooy tuddee al maslaha al mursala waaye yokkul dara ci njàng mi benn baat bal benn xaraf yokku ko ci kon yooyu yépp féex na ci bidaa loolu du dugg ci buntu bidaa mukk ndaxte jëmul ci jëmmi jaamu yàlla gi amul lum ci yokk amul lum ci wàññi waaye da koy ñoŋal ba ñu def ko comme ni ko sharia santaane ah mbokk yi mbokk mi nee na eh, nee na dafay dem ala kulli xaal eh, ñi ngi déglu eh, li nga xamante ne mooy ñaari audio yi may gis ne moom la yónnee waat di ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq defal leen ko danañ dellu si waat bisimilah yaa ngi baamu yoo xam ne da wax di baamu di répéter répéter fasaxa moom zéro écho ku koy rafetlu sariya moo koy rafetlu boroom xam-xam yi waxuñu seen bànneex bakkan seen dégg lañ am ci sa ci alquran ak sunna ñu koy nettali yàlla moo ne topp leen yàlla ak yonent bi ak u ak boroom xam-xam yi boroom xam-xam la ñuy wax boo ko weddee yow yow jàppal ci la sa sa boroom xam-xam yi wax da ngay nangu ne du ñëpp d'accord xëy na ci nan at sunna lii lii mooy lii mooy bidaa li moy bida hasana li moy bida bida bida sayya sa ya waaye wax ne la borom xam xey wax dama ko fay teggi yow sa deg nga am sa deg des na ci yow man sumay lire euh sara num mu riyadu salihin bi bi min def sama big ki la yor sama num mu la yor carayon la yor fu mu waxee loo xam ne ne xam mazhabam lay lay ki ay takk firine ay nangam nangam mutasaddidiin eh, man man ba def sama kii bokkuma ca dama ne nit ki dafay yaatal nu mu tuddee ngeen may wax naan nit ki dafay nu mu tuddee dafay jóom nangam nangam dama ne eh, góor gi eh, bu ma la màggee su ma la màggul xam-xam la ñuy wax su fekkee dégg nga xam am am nga xam so so so nga wax man xam naa ne maa la mag foofu xam mën na am suma moroom mu doom ngay doon jàngal naa ñoo xam ne doctorat bi nga def def nañ ko pare ñu wax ne maa leen yoroon Sénégal. dégg nga bon nag mag ak nangam naam xam-xam la ñuy wax rek ok wasalaamaaleykum wa rahmatullah aywa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw sama mag sama bàyyi ku dégg ni ngay waxee xam ne fii léegi ay lay nekkatu fi ay lay nekkatu fi boroom xam-xam yi dañoo dégg ne gàmmu bi daa bu rafet la seenu deggin kon yow ci nga sukkandiku borom xam-xam yi ndax saaba yo saaba yi yonent bi ci lañ bok waxna len la abdullah ibn umar yaro ci keppaaru yonent bi dengalim wax ci bida la yonent bi wax la baamu ne même bu nit ñi jappé ne bida bida dafa rafet bida bépp ak réer la ndax yonent bi wax lolu mom mu ñew bok ci saaba yi yoron deggin wa saaba yi yoron ndax bu ne la bu rafet kon saaba yi ñoo la de ñoo la koy njëkk def ñoo la gën a xër ci aw yiw waaye xam nañ ne aw yiw newul foofa ndax yonent bi wan na leen aw yiw fa mu nekk ci màggal ab juddoom te mooy woor bisu altine mu ne woon ca ñu ànd ak moom ne ca kon lii lu leer la am ma ñëw naan jàngal naa ñu la ñu am doctorat jàngal naa loolu beneen affaire la bu fekkente ne jàngal nga ñu am doctorat yal na la yàlla fay ca jàngal ga nga leen jàngal waaye lii ngay layil tey muy bidaa bu rafet ak mooy gàmmu gi amoo ci aw lay wu tukkee ci alxuraan ak sunna même boo jàngaloon àddina bi yépp xam-xam bi nga am di ko jàngale lu muy jariñ mooy mu teg la ci ak njub waaye su fekkente ne xam-xam bi lam lay yóbbee mooy nga jaar yoon wu wuuteek wa yonent rëddoon boobu xam-xam musiba la yal nañ ci yàlla musal musal la ci musal ci mboolem jullit ñi loolu rek mooy li nga xamante ne moom laa doon yokk ci sa kàddu yooyu nga xam ne ni nga ko jeexalee fi nga ko jeexalee ku ko dégg xam ne euh, actuellement nii waxeetoo xam-xam waaye sam maanaam euh, waxeetoo sago sa sago mi ngi bëgg a dem àndal ak dal nga xam ne ki ngay waxal sa doom la sa rakk la sa taalibe la ci xam-xam la ñuy waxtaan li sax ñu xam ko li saxul ñu xam ko. waana lislaam moo naan lii lu rafet la lislaam moo naan lii lu ñaaw la. l'islam moy kan moy yow mu yow yow yow yaay set na li lu rafet la yow yaay set li lu ñaaw la maanaam borom xam-xam yene sunna bu rafet dafa am sunna bu haram am sunna wajiba am ya leen ëpp xam-xam wala yaay sa professeur mo leen ëpp xam-xam laysa kullu ma fi sunna mulziman lolu qaradawi ta'biru qaradawi du sama ta'bir sax yow lazim nga waxon bo ne waxon mulziman mané mané mané waw ba boo ne ma waxoon man sax ma xëy mais nag mul mulsim bi nga doon dindi man de loolu laa dégg parce que man ojo yi aw ma temps di ko di ko num tuuti loolu loolu laa déggoon de xam nga akawaatu kaan ak nangam nangam xam nga ñu koy jàng ay ay ay ay ay ibtidaa yi ah, yow yow ok ciao salaamaaleykum ñu ñu yemale fi waaye ngir ngir yàlla parce que yaa maa ngi kii sama mas wallahi sadaqa rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na dëgg te lu mu wax deug la neena won da ngeen top ñi nga xamantene ñoy ñooy chrétien yi ba buñ toppoon buñ duggon ci mpax ngeen dugg fa and ak ñom magal anniversaire nit magal anniversaire nit moy at bis bis ba ca at mi delusi lolu bokul ci aaday julit ni bokku ci mo xam da ngay magal ab juddom mo xam da ngay magal am fatom mo xam leneen lu mëna doon lolu julit ñi musuñu ko xam ñetti siècle dund nañ ko musuñu ko xam ba nit al obay di al fatima yon shit yoyu di saga saba yi japp ne alquran dafa manki ñoo ñeek sos Magal ab juddu te ñing ko jëlé ci chrétien yi ñu daal di tàbbi ca la yonent bi waxon ne da ngeen top da ngeen toppi ñi nga xamante ñoy jifier chrétien yi ba fu ñu dugg ngeen dugg fa lu ngeen lu ñu def ngeen def ko ana nan la jullit bi nga xam ne moo gëm sayyiduna muhammad xam ne waxoon na lii di toppandoo ñooñee nga xamante ne duñ ay royuwaay ci diine te ñu lañu def ñu royee ko ci ñadul ay jullit nga jàpp ne loola lu rafet la loola lu baax la te li nga jàpp ne lu rafet la muy lu baax yonent bi musu koo def saaba yi musuñu koo def loolu yaakaar naa ne waxuma la euh, nga am xam-xamu sharia waaye boo amee xel mu rafet xam ne loolu jubul ñi ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq defal leen ko kon ibnu omar moomu ngay wax naan moo firi addis bi nga koy naw ci ak dégganam ak nangam nangam ma ne bon moom kan moo ko santoon yonent bi fa santaane xoon ne fu ma jaar bu fa bu ma bu ma noppaloo bu laa waran géwélam di tukki fu yonent bi mosoon a xam ne ba mu fi tukki ba mu ñëwee fii ba mu dafa dafa noppal xoon dafay noppal noonu te sonnul boo xamee na fii dafa jàddoon tuur ndox dafay tuur ndox kooku sant ah, ndax yonent bi def na ko kooku mooy tasaddut ci sunna xayru mulzim xayru loolu mooy seen problème seen intilaax ci sunna mooy mooy mooy mooy mooy mooy moo moo moo moo amul asaas yonent bi li muy def la nga man da koy def laysa sa maa fi sunna loo wax nga ne si man non mulsiman ok laysa kullu maa fi sunna mulsiman du liranti lu mu def rek danga ko war a def par par force bu defee dem gàmm na nangu nga ne gàmm na dafa woora man ma woor bu benn fan la war ma woor ñaari fan lu ci nekk ok. Euh, alhamdulilah euh, mbokk mi nee na am na yoo xamante ne bu ko yonent bi defee da koo jagoo keneen du ko bokk ak moom mbokk loolu taxuñoo jóg tey li ñu tax a jóg mooy lii yonent bi defoon mooy gàmmu wala boog def ak jaamu yàlla ngirub juddoom mooy woor bisu altine yéen ngeen ñëw di màggal fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm wala beneen fan bu mën a doon ci kii bi eh, ci at mi ñu ne leen wàcc ngeen yoon wa lu tax yonent la mu def ci jaamu yàlla ngirub juddoom wuru leen ko weesu lu tax saa ba yeroon ca keppaaram weesu wuñ ko woon ndax loolu la leen digal te xam nañ ni fa mu leen rëddal foofa la bu ngeen ñëwee di màggal geneen màggal gu bokkul woon ak gamu jàngale woon bu boobaa dañ lay laaj yiw woowu nga rafetlu lu tax nga jiitu ci sayyiduna muhammad ak saabaam lii rek lañ doon wax ci gàttal boobu ba léegi lii lañ doon wax bu fekkente ne amoo lay wu lay loolu waaye waaye bu boobaa bul yàq sunu temps bu ko defee nga jariñu ci sa waxtu ñu nit ñu jariñu ci sunu waxtu amma di wër-wërloo Euh, euh, dem bay wax sax yenn wax yoo xamante ne yu xaw a suufe la wax dëgg yàlla loolu euh, magum jëm warta def nu mel noonu barakallahu fiikum yonent bi boo ci yokkee lu ci bokkut loo ci yokk lu ca lu ca bokkut la ngay def ci sariya la da ngay jàng alxuraan jàng alxuraan dañ koy tere dangay wax siira yonent bi siira yonent bi dañ koy tere ci sariya xam nga li ma lay wax mooy ne seen intilaax ci sunna mooy asaas moo baaxul na ibnu omar daan def fu yonent bi tëgg tànk fu laay tëgg sama tànk par force bu jàddee tuur ndox ma jàddee tuur ndox par force du noonu du noonu sunnaay yonent bi dafa am lu ñuy tuddee farataag ay sunnaag ay nangam nangam ah, yooyu ke kenn waxul na julli nañ nañ sansa juróomi julli juróomi julli ñu def ko fukk kenn waxoon na julli timis nañ ko def ñeenti ràkk ko waxoon na nañ ko def def ñaari ràkk noo kooku ay asasiyaat la mais ay li nga xam ne ay ñu sopp laa ak ay ngëneel ak ay nangam nangam bu la neexee nga yokk ci bu la neexee nga wàññi ci sa ceeb nga baaxul yow yaa ko baaxulut borom xam-xam yi baaxlu nañ ko Ibnu Hajar Asqalaani dellu ca dellu ci Nawawi wax naa la ko dellu ci xaradaay yi nga xam ne yàlla na ko yàlla guddal fana gàmmu gii nga xamante ne moom lañuy def fukki fan ak ñaar ci weeru gàmmu di ci màggal juddub yonent bi ci ay bernde wala ay xeeti jaamu yàlla ngir màggale ko juddu yonent bi loolu laa ni amul cëslaay ci sharia bu dee da ngeen a jàpp ne aw yiw la yiw woowu yéen a ci jiitu yonent beeki saabaam te loolu mënta ne ci diine kon foofu lañuy ñuy waxee waaye bëgg dem gauche bëgg a dem droite bëgg a nekk ay wahabiya loolu meneen mbir la waaw bu fekkente ne am nga ay lay nga indil ñu ko ba léegi indeegoo lay wuñ mën a sukkandiku ngir jaamu yàlla ci jaamu yàlla goo xam ne yàlla ak bi joxe nañ ci ndigal yonent bi ne woon ca ay saabaam ne woon ca ñu doon ca jaamu yàlla bu dee loolu ne na ci gàmm nga andil ñu ko bu dee néewu ci nag nga xam ne da gis ne loolu dafa dëppoog fas-fas bi nga fas laata nga ci am firnde nga xam ne par parparloo moo la ci dugal ak toppandoo ah bu boobaa nga wax ñu ko ñun ñëpp ñu daal di xam ne lot nga ci indi ay lay ci loolu bu ko defee ñu daal di dem defi leneen waaye bu ñu ñëw nag di ñu dugal feneen ak wër-wërloo ba duñu egg ci dëggug sunu borom gi loolu moom ñun moom alhamdulilah euh, euh, baye boo nga xam ne loolu moom du dox euh, ndeysaan alhamdulilah ñu ngi sant yàlla di bàkk yàlla subhanahu wa taala ci xéewal gim ñu defal mooy duñu fas dara ci sunuy xol feek amuñu ca firnde lu tukkee ci alquran ak sunna wax ne ngëneel yi bu la neexee yokk bu la neexee wàññi diine maanaam yokk moom moo amul ci diine parce que lu ñuy yokk mooy loo xamante ne dafa matul mais diine moom dafa mat sëkk loo ci yokk rek dañ la koy delloo yonent bi loolu la wax yokk ci diine lu ci bokk nag munta ne comme ni nga xamante ne yàlla du indi aw lay ci bokkaale waxoon nañ ko ba ñuy tàmbali bokk na ci audio yi njëkk a def mooy yonent bi wax gi mu wax ne ku sos ci diine ji lu ci bokkul dañ la koy delloo ndax mënees na caa sos lu ci bokk déedéet loolu mooy waxu yàlla bi muy wax naan yàlla dafa tere ngeen bokkaale yàlla bokkaale yàlla goo xam ne yàlla indiwu ci aw lay waaw ndax nit mën naa bokkaale yàlla ci bokkaale yàlla goo xam ne da indi aw lay munta ne naka noonu nit mënul yokk ci diine sos ci lu ci bokk munta ne ndax ñàkk bokk ci diine melokaan la woo xamante ne dafa taqaloo ak sos moom la ñuy wax wasfun laazim maanaam melokaan wu taqoo ak li ñuy melal ñu delluwaat ca euh, addis ba man sànna sunnatan xasanatan man quiconque ku mu munta doon ku sunnaal sunna bu rafet waaw ku sunnaal sunna bu rafet nga bëgg na sos amut yonent bi wax na ko ne ne ku sos sunna bu rafet dañ koy xool ci sariya ñu xol ndax jàng alquran dajé nit ñi nga nga nga nga nga def sarax nga ray ay gatt ñi kont kontan wax ci diiné ndax ndax ndax ndax ñaaw na dafa ñaaw ci diiné fu ko fu ko waxé ci wala fu ko yonent waxé waxee bi yalla mo né top leen yonent bi ci lum leen indil jël leen lum leen téré ngeen bayé ko ana fu mu teree al nit ñi ne bu leen wax sama sira bu leen ray ay gatt fu ko waxé wor na de commencé nako ko la fofu la ci mëna a na yem yaay ya-, ya-, yaay dem foo ca mën a àgg ci nga ci ci ay ngëneel nga def ko waxuma la nga def ci lu ëpp nag xam nga ñu ko teree man eh, kii bu moo gàtt waaye man man mën naa ci wax ñu bari ñoo xam ne tere nañ ko waaye ñi ko ñi ko teree yëpp kenn dérange ci lu may eh, nu mu tudd ci eh, fàtt naa fàtt naa fàtt naa propriété almaxaasid yi nu mu nu mu tudd borom maxaasid yi ndax euh, waxuma usool yi la waaye maxaasidi la muy euh, allahumma salli ala sayyidina muhammad fàtte fàtteti naa bi waaye bi ma gëstoo gis naa ne moom li tax mu tere ko ndeke ci fatwa la woon ku bàyyi woon xaalis ne alal ne nañ ko ci defal lu mel ni ay mawlidu nabi mais mawlidu nabi du du farata du sunna bu dëgër boo xam ne jar na jël sa alal say doom war ko doon na nga dem tuuti loolu taxoon mu bañ ko <laughs> mais boo gëstuwaatee da nga gis ne eh, wuute euh, borom xam-xam yi dégg sharia yëpp danañ wuute maqasidu sharia ok ok imam Shaatibi wala seytaane moomu jàppoon moom fàttu imam Shaatibi ñi ci des ñëpp ay ñu jël seen bopp tënk leen ci buuma euh, wahaabi leen nga xam ne téere borom xam-xam yi nga xam ne ñuy wax xam-xam ànd xel yëpp <laughs> da nanguñ ñu dugg seen réew Ah, waaw mbokk gis nga wahaabiya yi seeni téere nanguwuñ mu dugg ci nangam maanaam wax ma lan mooy wahaabiya man loolu taxumaa jóg wahaabiyaak taymiyaak albaniyaak baziyaak xam nga man fan lay man fan laay waxee mooy yàlla nee na yonent bi nee na ba ma tàmbalee ba léegi waxaguma la ne la Muhammad ibnu Abdul Wahab nee na waxaguma la ba léegi Cheikh al Islam ibnu Taymiya nee na ba léegi ñooñu tudd ma leen sax te bu ma leen tuddee lu ma leen di tuddee seeni wax du ma ca sukkandiku feek dëppoowul ak alquran ak sunna mukk ñoom ak yeneen borom xam-xam yépp laa ci yemale ibnu umar mi ne kullu bidaatin dalala nga xam ne loolu waxu yonent bi la mu ne wa in ra'aaha annaasu xasana mooy déggin wa mooy dégginu saaba yi mooy même bu nit ñi gisee ne dafa rafet lu tax ma jël waxu ibnu umar boobu ndax dafa dëppoog waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam firi ko mu leer naññi imam malik mi ñëw gannaaw ibnu umar ci ay at yu bari nga xam ne ci taa atbaaru taabiin la bokk bi mu ñëwee dani man zaama anna fi l islaami bidcatan xasanatan faqad zaama anna muhammadan xaana risala nee na képp koo xamante ne yaa ngi woote ne am na ci lislaam am na bidaa bu rafet bu am ci lislaam nee na kooku woote na ni kon mu yonent bi dafa wor ci message bi nga xamantene mom la ko yalla yoni won mu ko jot li nit ñi yu rafet newon ci yo xamne jot li wuko ba ay nit ñew gannaawam lu yàgg gis ne yoyé dafa rafet ñu diko def lolu xam-xam du ko nangu xel mu rafet du ko nangu abadan motax kon euh wax ne ay ibnu taymiyat baziyat ak yu wahabiyaak yoyep manam da nga bëgg ñu nekk ci di nar nar yi ba li ñu fi taxaw na ñëw duñ ko def man loolu duma ko def ibnu taymiya bu ñëwee ay waxam ci balance bi lañ koy teg muhammad ibnu abdul wahab naka noonu ak yow say sëriñ ak seeni sëriñ naka noonu delluwaay ba rek moo tax lii ñuy wax ni yépp fiñ ko doon delloo mooy alquran ak sunna si yonente bi salallahu alayhi wa sallam ca dégginu saaba ya ak gaañu baaxee jaar seenu yoon ba fa suñu jox yàlla tey yi foofu la ballaloo xam-xam العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه خم خم ويلا نينا يونان تبينينا سابا ينينا نيو واي دور ورلو دور ورلو أكا نخساله كون لولو دو خم خم يلا نيو يلا دفال توفيق دفال لينكو من مي جانج خم كي وخ نمي وخي من ما خم في جيتي بي boko waxon ngay wax say wax yow nga jël nga bo len tuddu tit lañuy wax mom ngay wax man ma lire lañuy wax ma xamne wax tibbe yàlla nee na yonent bi ne nee na <laughs> loolu foo ko fi waxee fi la ngay la ngay firi borom sa sa sa ñooñ ñoo ñoo ko firi man wax naa ne su may lire Riyadou Salihine bu Ousseynou mi sama big sama big rouge lay yor lu mu wax loo xam ne nii fële la ko tëbee ma teg suuf ñëpp laay lire Ibnu Taymiya ak Ousseynou mi nag ñëpp laay lire ku ci wax loo xam ne nii waxu Balla Pouy di la ma teg fële ah. alhamdulilah eh, mbokk mi boo waxee mu ne eh, nangu nga ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàmmu na waaw waaw nangu naa ni gàmmu na waaye nan la gàmmoo mooy daa woor bi su altine bu doon da nga ni damay gàmmu ngir ci woor bi su altine saa yu ñëwee ngir ne ci la yonent bi juddu waay waay kon coow du jub kon du ñu débat kon du ñu yegg si moo tax saaba yi yonente bi salallahu alayhi wa sallam foofu la ñu yemoon boroom xam-xami lislaam yi ñëw seen gannaaw ñetti téeméeri at bidaa bi juddoogul ci loolu lañ ne woon kon yonent bi gàmmoom foofu la ne waaye yonent d'accord nañ ne yonent bi gàmm na waaye nag mooy naka la gàmmoo mooy dafa woor bisu altine ndax ci la judd moo tax ba léegi ba sunu joonu yàlla yi tey jii dañ maanaam dañ koy woor di digal nit ñi ñu woor ko ndax aw yiw a ngi ci ñetti yoon ñetti yiw yi ci yonent bi wax kon loolu bu doon loolu rek la kon waay waay eh, maanaam wuute gi du bari eh, mbokk eh, ala kulli xaal ñi ngi dellu di la dénkaat dénk sunu bopp maanaam sa doom ji sa taalibe bi sa ndongo lii mi ngi lay dénkaat nga ànd ak ak akuk dal di waxe ak sago xam-xam de du xët xët du fat-fat loolu du du feeñaluk dëgg dëgg li koy feeñal mooy xam-xam bu tegu ci ak ci ay lay yu wér Eh, yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Eh, ok sama façon waxin man noonu la ma yàlla bindee benn bis mas naa ko nettali seen mbokk yi nekk fii waa ji yore débat bi ci départ bi mu naan diw mu ne yow seen mbokk nga mu ne man ab borom xam-xam laa xam ko sax na borom xam-xam la eh, wax naa ko seen kenn seen mbokk yi seen booloo mi mu ne ko man ni may waxee loolu la ma yàlla bindee benn bis dama dem gendarmerie. am benn affaire bu ma amoon ak diggante benn waaye bu ma jaayoon benn affaire bu aju sama oto <clears throat> mu juum ca ma dem na ko mu ne man na dama juum léegi da may da da léegi eh, ma ne ko man nangam lay jar ma ne ko noo soxlaatu ma jox ma sama xaalis mu bañ ma ñëw gendarmerie wax leen ko ñu ma sa sama yoon nekku si ba ma ko leen waxee ma wax ko ñu ne ma sama yoon si ma leen waaw su ma demee da ngeen ñëw yéen la fi yàlla teg li état bi teg ne ku am problème ñëw si yéen ñëw am naa problème ñëw naa si yéen ngeen ne du ma kii ma yëkkati sama baat mu ne ma lu tax nga yëkkati sa baat ma ne ko dama yëkkati sama baat man ni lay waxee pour te dire que ne man du question ni ma lay waxee ak yow wala noonu la noonu la ma yàlla bindee ndonte ah, neexul it noonu la ma yàlla bindee noonu lay waxee man ok eh, du question dama meer wala leneen noonu la ma yàlla bindee nii lay waxee ok. man am dafa baxul xeyna du sunna man na am bida la wala ma wax mbokk yi fan yi na yonent bi lu mu deful kenn waru koo def lolou du hujja hujja moy lu mu tere kenn waru ko def mais lu mu defur kenn waru ko def ndax yow xam nga ndax def nako wala defu ko am desoon lépp lépp sunna na yaa ko xam hujja dur yonent bi defuko hujja moy mooy yonent bi da ko tere fu ko tere yow nang nga ne gamul indi naa la ay alquran bu benn borom tafsir alquran waxee na fii li ko jële ibna ibna ajar al asqalaani def istintaajam nga ne noon nga ne indi lay yu bees ban lay nga bëggati waaj indi la yàlla yàlla moom mënuma ko indi wala yonent bi waaw booy wax suñu yonent ba suñu yonent bi da nga koy teewal sa xol noonu lañ koy waxee suñu yonent bi noo yeneen suñu yonent ba suñu yonent bi ok dañ koy teewal ci xol. mbokk gis nga sama xol bii li na ci biir ba nga naan da ngay wax ne sunu yonent bi sunu yonent ba doo wax sunu yonent ba da ngay wax sunu yonent bi teewal ko ci xol gis nga sama xol bii li ci ne bay boo nga bàyyi kook yàlla mi nga xam ne moom rek moo xam li ne ci biir xol yi te nga indi ay lay man waxewu ma foofu maanaam man yow ci sa jëmmi bopp wallahi euh, maanaam amaloo ma solo lool ci maanaam attaqué la wala ma gor la wala ma nangam la man li ma amal solo mooy dëggu sunu borom gi na leer rek même buy bàyyi ci saw làmmiñ na leer rek bu bàyyee ko ci saw làmmiñ ma ànd topp ko bu bàyyee ci sama làmmiñ ku yàlla defal tawfiq maa ngi ñaan yàlla subhanahu wa mu may la tawfiq ba nga topp ko waaye nekk fii naan sa xol bi na teewak ak loolu dafa génn débat loolu taxu ñoo jóg xol bi moom bàyyi koog yàlla rek moom mi nga xam ne moom dong moo xam li ne ci xol yi jërëjëf. yaa ngi delluwaat gannaaw ndax yow nanga xoon nga ne yonent bi moom daana def altine ñu koy def altine mun nañu woote ne ñu bët bu set altine Sénégal quatre-vingt-dix-neuf pour cent mun nañu ne xamuñu sariya nga woo leen di leen jàngal siira di leen xamal yonent bi di leen ci xemam loo waaye waaye waaye loolu ko ko bëggut boobu méttiitu xoote la. man samay xutba su may def xutba ajuma ji ñëw incha allah am na benn jàkk war a jiite ci gàmm laa koy def ñu fa ëpp borom yi sikk ñu mel ni yéen lañ mais dama koy dama wax ne am na ñu ne nangam la waaye méthode xoote la méthode la pour xoote méthode la pour xamal xamale l'islam méthode la pour jàngale l'islam Sénégal quatre-vingt-dix-neuf pour cent amul amuñu kii nu mu tudd xamuñu sariya nga ñëw xooleen ñoom ñëpp ñu ñëw nga waxal leen siira yonent bi xemam loolu leen l'islam la nekk ñu koy wallahi mbokk ay lay laa soxla ay lay waaye méthode la pour jàngale siira méthode la pour nàngam loolu du aw lay dégg nga li ma la wax dama ne la siira comme li nga ci waxoon ca tàmbali ba loola laa jàpp loolu nangul naa la ko moo di ne amul bis boo xamante ne moom la ñuy tànn di ci jàngale siira ku jublu benn bis nag ne bis bii dama ciy jàngale siira ndax ci la yonent bi juddu loolu lañ la loolu tegul ci xam-xam moo tax saaba yi ci siira lañ dañoo jàngale dundu yonant bi lépp biir ak bitti kawak ak suuf lépp lañ doon jàngale te daawuñu gàmm musuñoo màggal juddu yonant bi fukki fan ñaar ci weeru gàmm te ñooñu xamal siira siira bi ñuy waxtaanee fuñ mën a ne ci saaba yi lañ ko jàngee te ñoom defuñu woon loola kon bu doon loolu màggal juddu yonant bi fukki fan ñaar weeru gàmm aw yiwa nga ca kon ñoom ñoo ñu cee jiitu ñoo ñu cee jiitu wallahi kon moo tax euh, mbir mi du foofu am maa di wax ne danaa ci xutba te fa may xutba sikkim boroomi sikkim yu mel na yéen yéen a fa ne loolu mooy xeer yi ngay sànni te loolu yëgoo ni toujours yaa ngi def ay bêtises ci loolu naka la sama sëriñ moo di ne yëgoo ni xanaa da ngaa fàtte ni sikkim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki ko digle moo ni nañ ko baal kon boo jëlee ay sikkim nga askane lañu ko ne borom sikkim yu mel ne yéen kon yow génne nga ci sa bopp sikkim boobu de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma ko digal moo la ko digal moo ko digal julit ñëpp ne nañ baal sikkim yi wat mustaas yi wuuteek ñi nga xam ne ñoo ñooy ñi nga xam ne duñ ay jullit ñu wuuteek ñoom yonent moo ñu digal loolu kon boo ko jëlee di ñu ko sànni di ñu ko askanale eh, ku jëlu sikkim askanale lañu koy day ñun ñu sant yàlla sant yàlla mi nga xamante ne moo moo ñu defal tawfiq ba ñu nangul sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndigalam loolee ne bàyyi leen seen i sikkim ñu bàyyi ko di ko jaamoo yàlla minute bu nekk seconde mu ne dañoo gëm ne bàyyi gi ñu bàyyi suñuy sikkim yàlla ngi ñu bindal tuyaaba ndax ndigalal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la tege waaye loolu taxu ñoo jóg la maanaam wax jooju moom boo ko jëlee sànni ñu ko jàpp ne dañuy naqari déedéet dañ koy bàkkoo dañ koy sante yàlla bàkkoo gi mooy lan moo di ne melokaan woowu moo ñu wutaleeg ñi nga xam ne ñooy juif yi chrétiens yi ndax yonent bi moo ñu ko tànnal muy melokaan woo xam ne ku ni mel te do ab julit ñun nga nuru nurulu waye nuru nuru wuru la ñun euh, kon lolu dal moy li nga xamantene mom la la bëggoon wax ci euh, wet gogi muy jëm ci jërëjëf kon ñëwal ci gamu gi te bayyi sikim yeek yooyu sanni xeer yooyu yépp du du tax dëgg gi soppeeku nekk ay neen du tax neen gi soppeeku nekk dëgg xam-xam rek ay lay rek yow nangoon nga ne gamu na di def na def na altine def na lu gëna bari lool ñun dañ ko dañ lim fimu mu àggoon mënta ñun fi mu àggoon altine yu jot mu màggal ko di di di di rey juróom xam nga la wax na wax boo xam ne man tontu ma ko sa wax nga ne yonent bi juróom ben fukki juróom ben fukki gëlëm yam rayen ak loxom ak ñettel lu tegtale ay atam la borom xam-xam ngee ko wax ñoko netti la ñako neel fekke netti liko ñoko ñoko wax nga bu ko wet yàlla neena na nga men top ak yonent bi ak olil amri minkum mooy ulama rasiqiina al aamiliina nga nga bëgg a teppi ko individu eh, mbokk mi boo waxee mu ne eh, nangu nga ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàmm waaw waaw nangu naa ni gàmm waaye nan la gàmmoo mooy daa woor bi su altine bu doon da nga ni damay gàmm ngir ci woor bi su altine saa yu ñëwee ngir ne ci la yonent bi juddu waaye waay kon coow du jub kon du ñu débat kon du ñu yegg si moo tax saaba yi yonente bi salallahu alayhi wa sallam foofa la ñu yemoon boroom xam-xami lislaam yi ñëw seen gannaaw ñetti téeméeri at bidaa bi juddoogul ci loolu lañ ne woon kon yonent bi gàmmoom foofu la ne waaye yonent d'accord nañ ne yonent bi gàmm na waaye nag mooy naka la gàmmoo mooy dafa woor bisu altine ndax ci la judd moo tax ba léegi ba suñu joonu yàlla yi tey jii dañ maanaam dañ koy woor di digal nit ñi ñu woor ko ndax aw yiw a ngi ci ñetti yoon ñetti yiw yi ci yonent bi wax kon loolu bu doon loolu rek la kon waay waay eh, maanaam wute gi du bari man daal bon maa ngi laajte luy lislaam léegi lislaam mooy lan du mooy li yonent bi jàngale mooy alquran eh, alquran wax sunna wax mu pratique ñu ñu gis ko foo fi gisee yonent bi tere na bu kenn wax nettali sama siira bu kenn rende ay gàtt di ko di ko num tudditi wax nga yow nangu nga ndax woroon foo gisee feneen fu mu ko tere yàlla na ne lu mu leen indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen ko ana fu mu ko tere yow nangu nga ne gàmmoon na man day xoxoma loo bëgg yow nangu ci sunna ne yonent bi gàmmoon na ba xegal na na na na na nañu yem fa nañu yem fa fa ñu yemoon ndax foofu la bon kay bàyyi sa euh, kii ibnu omar it moom itam muy muy jadd di tuur ndox noonu te bëgg di tuur ndox ridwanullahi taala ali bàyyi ko muy jàpp di jël loxoom di dugal ci ay bërëb bay am problème bët Euh, mbokk waaw ñëwal foofu fan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teree ne bu leen jàngale maanaam euh, bu leen jàngale sama siira bu leen def euh, maanaam nangam waaw yonent bi kay terewul jàngale siira moo tax jàngale siira moom ni ko saaba yi doon defee ñun moom lañ koy defe rek yow nee nga bis bu ne da ngay jàngale siira ak maanaam jaar-jaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw loolu kay lu ñu sakku la amul heure waaye nag di ko màggale bisu yonent bi sallallahu alaihi wa sallam manam damay jangale sira yonent bi ndax ci bis bi la juddu won lolou mo amul ciosan ci l'islam damay saraxé ndax ci bis bi la yonent bi juddu won lolou mo amul ciosan ci l'islam damay def nangam ndax bis bi ci la yonent bi juddu won lolou mo amul nangam ci l'islam damay wor bisu altine ndax ci la yonent bi juddu won lolou moy l'islam lolou lañu yonent bi sallallahu alaihi wa sallam digal mbokk diine ngi ni diine yep ay firnde la salaamaaleykum wa wa barakaatu waaw mbokk yi eh, ñu ngi sant borom bi tabaraka wa taala di jullee ka sëlmal ca sunu sang bu tedd ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa alihi moom ak ñi gëm ci waa këram ak isaabaam ak képp ku topp seenu yoon baba ba saa di taxaw bu loolu wéyee ñu ngi eh, jeexale sunuy kaddu ci sant mbokk yi nga xamante ne ñoo eh, taxawaloon waxtaan wii di beral cant ki nga xamante ne moom lañu séqaloon waxtaan wi waaye di beral cant gu rëy mbokk yi nga xamante ne ñoo doon topp waxtaan wi di ñaan borom bi tabaraka wa defal ñu tawfiq euh, te defal leen ko euh, li ñuy tàggoo rek mooy lañu tàmbalee woon mooy diine ji euh, lépp loo xamante ne moom la ci waay di fas ci ab xolam wala mu koy jëf ci ay cëram ci ay jaamu yàlla wala mu koy jikkowoo ak jëflanteeg nit ñi dafa war a tegu ci norme yi nga xamante ne moom la sharia indi mu tegu ci ndigalal yàlla ak ndigalal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi lépp lu nit di jaamoo yàlla lépp loo xamante ne nit da koy jaamoo yàlla loole yàlla da caa war a joxe ndigal lu précise naka noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ko ca te lii ñu doon waxtaane mooy màggal juddu yonent bi fukki fan ñaar ci weeru gàmmu ak luñ ko mën a beral ci ay xeeti jaamu yàlla ak ay xeeti jëf dafa wàcc ndigal li nga xamante ne moom la yàlla joxe ak li yonent bi joxe ndax su fekkente ne gàmmu gi danga koy def ngir jaamoo ko yàlla jàpp ne aw yiw la jàpp ne dafa rafet yiw woowee su fekkente ne gaañu baax ña defuñu ko woon bu boobaa kon loola mënta nekk ak yiw ndax lu di yiw ñooñu ca jiitu te yonent bi luy aw yiw tegtal nañu ko ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu may ñu dégg ci diine wasalaamaaleykum jërëjëf sëñ bi sikkiñ yi loolu ay kaf la il faut ñu nekk ay doomu bàjjan léeg-léeg man mii dama yarab sikkiñ seulement dama ko bàyyi nag mu mel ni yenn wante yonent bi ñu ko sant dégg la waaye nag nañ delluwaat ci kayfa nata'aamalu ma'a sunna yonent ba mu ko waxee am na ñu yar am ñu yarut parce que nekkut lu waajib am na ñoo xam ne yaakaar na k ko deful sax doo doo du noonu dañ delluwaat ci sunna yeneen ba mu ko santaane am na saxaaba yi yar am na am nañu yaru te waxu leen dara am na ci ñoo xam ne nii yaakaar nañ ne surtout Arabie Saoudite ku yaru sikkiñ doo ab jullit te noonu de ñu ngi jéggalu suma wax ji lépp luñ ci déranger maa ngi koy jéggalu man yàlla ma bindee may waxee noonu waayante sama xol ku ma xam xam ne ba ma juddoo ba léegi ci diini rek lay la lay dund man naa am nag diine bidaa comme ni nga koy waxee la waaye man. la yàlla xam doy na na yàlla fay leen fay boobu mboolem jullit ñëpp ñuy déglu ku ci déglu loo xam ne it dérangé na la yàlla na ñu ngi koy jéggalu ñu de xam-xam rek lañ bëggoon a wax boo defee mm, waa ji ni mu waxee ki jiite woon kii bi sant ñu ko ñu sant moom itam mu ngi ci boole waaye yaakaar nañ ne pour dellusiwaat mën na ne waaye soo mu xëy na du gaaw parce que am na yeneen yu ñu war. Euh, dégg nga euh, jërë jëf yal na yàlla defal ñuy jàmm defar ko mboolem jullit ñu ngi leen di ndokkeel ci weeru gàmmo wi weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah yonent bi mooy royuwaay bu ñu waxat na wax ne yonent suñu yonent bi mooy yonent baax waaw yonent bi mu teewal ko suñuy xool sallallahu alayhi wa sallam. salaamaaleykum wa rahmatullahi ah, mbokk wallahi Euh, wàcc gi nga wàccoon yoonu xam-xam ci débat bi doy na waaye bu ci dolliwaat beneen mooy ci sikkim gi wax gi nga wax ne yonent bi bi mu dëgalee saaba yi ñu baal seeni sikkim am nañu yar seeni sikkim am nañu yarul dama bëgg rek nga wax ma kenn ci saaba yi koo xamante ne daf daan wat ab sikkimam wuuteeg ndigalal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu bu ko wax noonu rek dem waaye wax kan ci saaba yi mooy ki nga xamante ne dafa wuuteeg ndigalal yonent bi ci watub sikkimam ginnaaw bi ko yonent bi diglee loolu andil ñu ko am maa koo xamante ne ndax dafay jàpp ne ku watul am ñoo xamante ne dañuy jàpp ne ku wat ku watul ku wat ab du du wala maanaam lu mel noonu loolu bu ah nga wax ñu kooku mooy kan ñu xamal ko ne ko loolee euh, dafa juuyoo ak li yonent bi alayhi salaatu wasalaam andi ndax wat sikkim ñun dañoo jàpp ne dafa war ku ko bàyyi dangay am bàkkaar waaye nag du la génnee ci lislaam de ñu de loolu lañu gëm euh, kon bul wax say wax yooyu rek sànni ko dem ngir muy ay xeer yooyu sànni euh, débat bi jeex na waaye lépp loo wax loo xamante ne nag dafa juyoo ak sharia dañuy taxaw ne la lii juyoo na ak sharia ak loo ñu mag mag ak loo ñu ëpp ëpp xam-xam ndax même boroom xam-xam yu mag ya sax bu ñu wuuteeg alxuraan ak sunna ñu xam ko dañ koy leeral wormaal leen jox leen seen wàccuwaay waaye dëgg moo ñu gënal boroom xam-xam yépp boroom xam-xam loo ko fonk-fonk dëgg la ko war a gënal loolu du tee nga fonk ko maanaam bu boobaa da ngay ànd ak dëgg daal di koy sàmmal euh, wàccuwaayam jërë ngeen jëf waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk xam nga lan nga war a xam euh, te yaa ko gën a xam moo di ne waxu boroom xam-xam dañ koy wutal firnde waaye kenn du ko def firnde dama ni la bu fekkente ne boroom xam-xam sàngam dani am na ci saaba yi ñoo xamante ne yaruñu woon seeni sikkim waxam boobee faw mu am firnde kan ci saaba yi moo wuute woon ak ndigalal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wat sikkimam gannaaw ba mu ko diglee loolo ab laaj la boo xamante ne faw ñu indi ko ba pare ñu doog a nag euh, mën a waxtaan léegi nag bu fekkente ne yow booy wax buñ la waxee da nga naan dellul ca téere sàngam doo mën a indi firnde li firnde moom jërul yonent bi nee na nangam wala saaba sàngam moo def nangam wala moo wax nangam loolu jërul jërul dellu ci beneen borom xam-xam wala borom xam ba boo ca delloo dana tudd firnde loola bu tuddee firnde loola nga indi firnde loola indil ñu waaye ama ñëw rek ne borom xam-xam sàngam nee na saaba yi noonu lañ doon def déedéet al isnaadu min ad diin diw nee na diw nee na diw nee na yonent bi nee na looloo ci diine ji la bokk léegi ndax bu fekkente ne lool a jóge na fi kenn du mën a xam xàmmee lenn loo xamante ne moom la yonent bi wax ak li mu waxut bu man da ngay wax ne borom xam-xam nee na nangam man ma tëb ne la boroom xam-xam nee na nangam wala yonent bi nee na nangam te man a wax fu ma ko jëlee firnde